xamul ak mujjam nan lay deme kon bu nekk ci àdduna sukuraat nekk ci kanamam te xamul ci nan lay deewee ci wan melo tiraayu bàmmeel nekk ci ba kanamam war naa delloo ci xelam ci yu bari te dund ba noppi dund gi li ci ëpp di perte lu jaram moyoonu la yàlla na ko suñu borom fegal te nit àdduna ji li mu gàtt gàtt li soxla yi bari bari li bëgg-bëgg yi bari bari li dundum nit di gàtt gàtt ci la ñuy fàggoo sunu ëllëg te ku fekkonte ne yàlla may na la ngay yër ëllëg na muy demee dootoo néeg benn minute ci sa dund nga sànk ko fi mu toll nag seetaane dafa bari doole bëgg-bëggee àdduna bari nit bari jaar-jaar ak fu muy dugg ak lu muy toppatoo lu muy ittewoo ba dañuy fàtte faw rek am njëriñ gi jamono am njëriñ suñ dund gi nga xam ne daanaka dara xaju ci te ñu ne wa inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu fu ñuy waxtaane gaa ñu baax ñi yërmande yàlla day wàcc rawatina fu ñuy waxtaane yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ndax moom day bu mu fi ñëwee ba ni fi jóge lu xett li nit ñi rek la fi doon liggéey ndax moom lu ko musal lu ko rawale lu ko am may li mu bëgg lépp am na ko ba noppi waaye yërëm jaam ñi rek moo tax mu ne zimaamul war a afri la dallaahi fi yadi ba suñu borom yëkkatee nosub jaam ñi teg ko ci loxoom it doyloowul kattan gi ko yàlla may nga xam ne yemiwul fenn fu mu toll daf daan waare di fàttali nit ñi seen ëllëg di ko bind di ko wax di ko jëfe xuus ci boromam ba nga xamne xol ko rek ak jaamu yalla la xamne xol bo xamne beut yamu andal neena ko jak dana amuk jajju dana amum tit. waxtaan yi mu daan tok di waxtane di tomb tomb yi di rëdd rëddam yi di ye nit ñi bo fa masaan jege da nga tok ay weer mel yaangi yaa mom tit mi nga titon sa xol bi dañ gi mu dañon ci lepp lu lay lor set wecc nga tàggoog mom diirub jamono xam ngeen ne nettali nañ ko ci ay yoon ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na saaba yi ni ngeen di mel bu ngeen toogee fi man may waxtaan ngeen di ma déglu di ma xool day bu ngeen ko mënoon a wéye da ngeen di àgg ci sell ak ci jege yàlla foo xam ne malaayika yi dañuy jaxasoog yéen di joxanteeg yéen loxo di nuyoog yéen di wax ak yéen kon bu fekkente ne dañu góorgóorlu bëgg lu baax bëgg lu nu xettali ëllëg lu nu xettali ci sukkuraatus ndee lu nu xettali ci biir tiraayu bàmmeel lu nu xettali ëllëg bu nu dekkee lu nu xettali ëllëg ca taxawaay bu metti ba nu ne nañu dajaloo fi béréb fàttalente delloo ci xel yi ndax xol dafa am lu koy namm te li koy namm mooy jataay yi mel nii ndax dañu ne benn jataayu waare mo ëpp tuyaaba téeméeri rakka yoo julli xam ngeen ne téeméeri rakkaay yoo julli boo ko sellalee am na njëriñ lool ndax sëñ Tuubaa nee na Junayd ak Seydina Ibnu Qasim kenn ku ci nekk bi nga fi jógee ba mu bir diir am na ñu la gis ci gaay yàlla yi laaj la ne la yow na nga def ci bàmmeel sa tuyaaba ju bari ji ni nga dëkkee woon jaamu yàlla ak wut ngërëmal yàlla ak daw lépp luy alak nit na nga def kenn ku ci nekk kàddoom mooy man de li ma jaamoon yàlla lépp jeex na ci biir bàmmeel ba mu des ñaari raka yi ay raka yi ma daan julli njël julli njël kon buñ la nee gam ñaari rakkaa koor dana jeex jihaar jeex tasaare xam-xam jeex sarxe jeex jeex lebal sa mbokkum jullit mu lot jeex taxaw ci aajoom jeex def ko ne sa bopp jeex di laa biiranteeg moom yooyu yëpp tuyaaba ya jeex des lu dul ñaari rakka walla ñeenti rakka wala juróom-benn yu nit di julli ci njël julli am na maanaam kon buñ ne nag jataayu xam-xam jataayu waare jataayu fàttaliku ëllëg moo ëpp doole téeméeri rakka ku ko teewe war ngaa taatan sa xol ak sa xel dégg li ñuy wax jàpp ko boo fa jógee loo ci jëfe mu jariñ la bu la yàlla mayul woon sax nga mën koo jëfe it waaye bi nga koy déglu dugg na la te dégg nga ko bu baax tuyaaba foo xam ne nag buñ fa demee dara du doy dara du doy te benn minute bu nit pertoon ci dundam dana ko jooy ay at kon képp koo xam ne kii génn goo àdduna yaa ngi dund xam ne sa cër yi mën nga cee jaamu yàlla sa xel mi mën nga cee root lu la jàjji sa xol bi mën nga ko setal def ko ci li gën te defuloo ko boo légee rëccu nga dana metti lool kon nag bokk na ci li nga xam ne mooy sunu njëriñ te duñ ko rëcc mukk muy toog jataay yoo xam ne àdduna ji alal ji bànneex bi lépp dañ koy teg ci wet delloo si nag sunu borom delloo si sunu ëllëg donte diir bu gàtt lay dana nu jëriñ te lu baax doomu aadama suñu borom daf koo bindee noo xam ne daanaka lu mu jéem mën ko itte ju mat sëkk lu nit ko itte woo rek suñu borom dana ko defal fekk na lenn la laaj moo di ak way akuk takku ak way akuk takku moo gën ci jaamu yàlla gis ngeen di ci sëñ Tuubaa bi wax ci masaalikul jinaan li gën ci jëf yi tudd na ci jëf ki nit ci saxal donte lu néew la it waaye waxtu wu nekk wu jotee rek mu def ko ndax mooy setal xol wa maa yusafi l qalba wa huwa maa uddi minhu wa in qulli la qaalahu alxakim bokk na ci jëf yi ëpp njëriñ waxtaan nañ ko ay yoon jëf ji metti ci yow ji naqari nga daan sa xol forcé sa bopp jëf mu ne ni mu ko waxee rek ci koor ci ko foqle génne sa alal joxe ci ku nay julli ci ku tayeel muñ jotaay yi bari yi ci ku tàmm waxtaani àdduna di jëw di wax lu la warul sa mbërtal sa làmmiñ lu ñëw sa xel nga wax di bëgg di tudd ay jaambur sóob ci waxtaan wi sóobu ci sóobu ci ba fàtte sa borom waxtu dana jox sa jot sa xel bi ca dem kooku wéet di xalaat moo ëpp tuyaaba ci moom buñ ne nag axbaru bi fawq fikri saa ibadata sanati laazim a wax nañu ne day toog ci sa béréb benn jamono bu gàtt di xalaat di xalaat ni yow ba ngay ñëw indi fi sa bopp te moomu la ci sa bopp lepp lo jëfëndiko ak cër bu sax ci yow da nga wax mom ëlëk mo ëpp doole at mo xamne da ngay jullee ko wor te do noppal kon jullit ñi war nañu boole seen bop fonk seen bop fonk seen bop moy fonk l'islam fonk l'islam moy jullit bu mu doon rek nga amel ko yiw foo ko mën a jëriñ ko fa fu ñu koy waxee lu dul noonu nga suturaal ko boo ko suturaalee suñu borom dana la suturaal yowmal xiyaam naka noonu wax ju rafet yoo xam ne da ko wax ngir bëggal ab jullit tuyaaba ji xujul fenn la naka noonu ñaari jullit ñu dëngoo nga jubale leen wala nit ku ñu tudd fi mu wax lu dul noonu ci moom nga wax ca lu rafet yow defar ko bu ëllëgee suñu borom dana la suturaal sarax dana fekk juróom-ñaari fukki deehiin yu ñaaw dana yokk daraja dana dindi bàkkaar dana yombal jéggi siraat te loolu lépp bala ko nit kiy def day toog di xalaat ndax xalaat mooy jàjj nit mooy setal xol mooy fàttali yàlla ndax nit ki nga xam ne du toog di xalaat mukk day wéy ci dundam rek ni baaxima yi dundee bu xiifee wut lu mu lekk bu mare wut lu mu naan bu soxlaa yére toppatoo ko moog bàyyi may yem képp du fàttali ko dara ci ëllëg te bu ëllëgee bàyyi may gën ko aw demeen ndax ñoom kenn toggu leen jëf kenn bindalu leen bàkkaar amuñu ëllëg delluwaay boo xam ne lañ jëfoon lañ fay jëriñoo ni nit ki nit ki kon war na wuteeg bàyyi muy te mooy muy delloo si xelam dañu ne woon nag gannaaw moom joxe wuñu woon benn mawdu joxe wuñu woon benn sujet te waxtaan wi kon ay laaj lay doon def maanaam muqaddima bi mooy maanaam introduction bu ko defee mu ñu delleesiwaat nag ñun ñëpp suñu ay xol te xam ne jataay bi mu ngi mel ne jihaar mu ngi mel ne jihaar ci ku jéem a déglu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nekkal di boroom xam-xam boo ko nekkul nekkal di kiy sàkku xam-xam sàkku xam-xam nag ñun ñi ñëpp noo ngi sàkku xam-xam fii nu toog ndax lépp lu luñ fi dégg ci sunu moroom ñu jàpp ko fas ko yéene jëfe kon am na nañ daraja kii sàkku xam-xam wala nga bokk nekk kuy déglu rek te doo jàpp dara ba tey moo gën bañ koo doon walla boo mënul di borom xam-xam mënuloo di kuy sàkku xam-xam mënuloo di kuy déglu xam-xam buñ koy wax nga sopp boog ñi ca nekk muy ñent manzila yo xamne bo ci mënul la nek ben bul fexe ba nek juróomeel ba ta moy ki nga xamne duko déglu soxla wuko duko yakal waxtanam duko yakal soxlam duko yakal dara moy kun aliman aw mutaalliman aw mustaman aw kun muhibban li zawi waye wala takun al xaamisata fa tahlika nu dugg bok ci laaj yi laaj yi nu fexe ba muy laaj yo xamne day am ñariñ lo xamne buñ ko xamé ndax masala xam ko rek tuyaaba xam ko rek jaar la jëfe gën ak ñëw di njëriñ lu yemewul fenn benn masala boo xam ci diine yonent bi sa alayhi wasallam dafa ne suñ borom yërëm na benn jaam bu mu xam ne dégg na benn xadis ci sama waxtaan jottali ko keneen kon nga dégg waxtaan wi xam ko jëfe ko jottali ko keneen mooy njëriñ li gën a mat boo ko mun la li keneen nga xam ko jëfe ko boo ko mun la jëfee na ko xam boo ko mënee li keneen nga jottali ko waaye na la dugg kon bismillah dugg ki nga xam ne mooy laaj laaj bu njëkk mu bu di Serigne Talla Diop mu ne gannaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi di ñaanal sëriñ sàmbay mi nga xam ne nii ni moo bàyyi yitteem yépp ak soxlaam yépp ñëw fii ci ñun ngir wut lu nga xam ne nii ni moo nuy xettali ëllëg yàlla na ko suñ boroom may fan wu gudd gudd gudd lépp lu nga xam ne nii ni yéene na ko ci yoon wi yàlla na ko suñ boroom yombalal ni mu yombale lépp lu baax mu ne mi ngi laaj moom mi nga xam ne nii ni di ci laajaale sax mbokki jullit yépp ñun ñi nga xam ne ñun lañ tuddee moodu moodu ñu jóge senegaal bàyyi ay ndey bàyyi ay baay bàyyi ñépp bàyyiwaale fa ay yiw yu bari ndax nee na duñ julli jumaa duñ dem ci ab dëj duñ fekke ngénte duñ seeti ku wàpp walla ku gaañu ñun nan lañuy mën a fexe ba fii ñu ñëw ci réew mu nga ni du réewum jullit liñ fi indi woon aw yiw buñ ko yokkut nan lañuy ñuy fexee ba mu buñ ko yokkut nan la ñuy fexee ba duñ ko fi bàyyi maanaam du wàññiku bismillah muur de xanaa mooy ki jóge ci réewam mu sori ñëw ci réewi tubaab yi di sàkku wërsëgam lu mu dunde lu mu yore njabootam li mu faj ay waru garam ki fay ay boram joxe addiya sarxe dimbali ñi mu war a dimbali muy loo xam ne bu ko ci ni ko lislaam gise loo ama am solo la buñ tàmbalee ci li Seydina Omar radiyallahu anhu wax ne sol dàlli weñ di wut lu mu dundalee njabootam ba dàll yi xar moo ko gënal di jihaar ci yoonu yàlla ba dee sëñ Tuubaa dafa ne fa inna fil iyaali turqan lil jamil njaboot yoon wu jëm ci yàlla waxul yoon wu jëm àjjana yoon wu jëm ci yàlla ngi ci li ci gën a woyof mooy nga muñ yan bi tegu ci yow te muy njaboot gi nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko mooy li ci gën a néew kon muñ gi nga ko muñ rek tuyaaba ju la nga rafetal ko nag taxaw ci seeni aajo ak li ñuy itteew ak li war ci ñoom ba def ko jihaar la mu am na kon yow mi nga xam ne da jóge ci sa réew dem ci meneen réew di sàkkoo yan yu rëy yu tegu ci yow ak yoo war a xam xam na nga koy jàppe bu fekkee ne da ngaa bëgg a jariñu te doo loru ndax bépp jëf boo xam ne jaamu yàlla la bu rëy nit mën na caa def lu dul noonu ba amee ca yan bu diis nit ki bu muy jóg jullit moom rawatina taalibe ndax taalibe moom dañ ne moomul dara dara moomu ko moomul dara dara moomu ko jullit itam moomul dara dara moomu ko ndax su boroom dafa wax ci alxuraan ne jënd na ci jullit ñi seeni bakkan ak seeni alal jaay leen ko àjjana rawatina nag taalibe bi ndax taalibe bi ni sëñ Tuubaa fabe tànkam radiyallahu anhu teg ci tànku yonante bi sallallahu taala wa sallam la taalibe yi war a fabe seen tànk teg ko ci tànk saxaaba yi di leen roy <coughs> bu fekkente ne dundal njaboot wadd ko sàmm ko yar ko yoon wuy àggale nit ci yàlla la bu ko sellalee bu ko sàgganee itam toppat yañ koy topp ëllëg noonu la diise nu seet kon euh, móodu bi ki ñuy wax móodu warugar yi ko war ca ñëmu bàyyi gannaaw warugar yi ko war ci moroomam yii fi ñëw di liggéey ak warugar yi ko war digganteem ak ñim fi fekk mu di tubaab yi te bokkul ak ñoom diine kon muy delloo ci xelam ci ne ñamu bàyyi gannaaw njaboot la goo xam ne suñu borom daf koo yëkkati teg ci aw loosam te lu ci manqué bu ëllëgee dana ko ko laaj ni nga xamee ne bu ca sonnee bu ëllëgee dana woyofal taxawaayu yomul xiyaam di woyofal tiisu bàmmeelam di yombal jéggi siraatam ndax suñu borom dafa ne ci xadiisul qudsi almaalu maali والفقراء عيالي والأغنياء وكلائي فإن بخل وكلائي على عيالي أذقتهم نكالي ولا أبالي jullit ñëpp njabooti suñu borom lañu njabooti suñu borom nag gannaaw képp ku mu jox dara daf la koo dénk rek bu ëllëgee daf la koy laaj sant la ne la nga taxawu ci sama njaboot ji man suñ borom man mi moom alal ji jox la ko nga xam ne kon sa njaboot ji boo leen dul fàtte ci lu ñu dundee fu ñu dëkk lu ñu woddoo bu fekkente nag am na ay doom yu ndaw beneen charge lay doon ndax xale yi dañ leen a war a yar teg leen ci yoonu lislaam bu fekkee ne war nañ leen gannaaw war nañ fa bàyyi ñoo xam ne benn daañu leen jàngal seeni ah, farata jàngal leen alquran loolu moom yenn la boo xam ne du nu teggiku mukk lu nu sori sori bu fekkente ne njaboot googu indiwuñ leen fi nu nekk nu bàyyi leen fa war nañu faa bàyyi ñoo xam ne nun ci su bopp daanu fexe ba ñuy ittewoo yar xale yooyu jàngal leen alxuraan ndax doomu jullit yoo xam ne xamul lu muy jullee xamul lu muy woor mënula tari faatiha mënula tari saar te bu ëllëgee mu war koo layoo ki ko jur yan la boo xam ne moodu bu nekk fii ni mu war a toppatoo ndeyam ak baayam jox sëriñam addiya war na ëllëgi doomam ji mu bàyyi ci xelam ndax xaleel kat dañ koy yar yar nag am na lu bari lu ñu ci rëcc ndax dañu ne al al ummu madrasatul yaay mooy lekkoon bi njëkk nun nag bu fekkee ne nun mag ñi njëkkunoo yaru bu nu yaruwul xamunu yar du nu mën a yare rawatina suñu jigéen ñi ndax suñu jigéen ñi ci seen bopp xaleel fi yar di tàmbalee dañ koo tudde wuñ ko tërbiya waaye dañ koo tudde irshad yonent bi sallallahu alayhi wa bis muy lekk ci ndab Abdullah ibn Abbas xale boo am ñeent at nekk ci di wëndeel loxoom fu mu gis lu bëgg fab ko sex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul bismillahi wa kul mimma yalika wa tamahal booy lekk neel bismillahi ta ngay yem ci sa kanam te ngay sàq bi ba mokk nga wanaasu xale bu am ñeenti ak kon war na noo tàmbali di ko jubbanti di waxtaaneek moom itam ëllëg di waxtaaneek moom yàlla di waxtaaneek moom bàmmeel di waxtaan ak moom yooyu yëpp ndax xol lu fa njëkk moo fay sampo luñ fa jëmbat moo fay sax te la ca njëkk nee ñu xol bi ñu gën a yaakaar ak texe mooy xel bi nga xam ne yiwa ca jiitu te xol bi nga xam ne yiwa ci jiitu mooy xol bi nga xam ne bi boroom juddoo teel nañ koo xamal yàlla xamal ko ne ko diine am na xamal ko ne ko loo jëf dañ la koy fay xamal ne ko jub am na xamal ko ne ko dëng am na xamal ko ne ko boo dee wëndeelu xale yu bari yi ngay dajeel ci mbedd mi ak ci yeneen kër yi kenn yaru leen bu leen roy mu xam ne kon lu baax am na lu bon am na xalel am na ni mag amee lu mu war a wattandiku ak fu mu war a dem ak ñi mu war a àndal ak ñi mu warul àndal ñuy seet ñi muy àndal di xam ñan la di seet fi muy dem gannaaw bu ñu ko jàngalee li war ci moom ba noppi léegi xale bi yaay ji ci boppam moom it war na ñuy waxtaan ak ñoom ndax bu fekkee ne dañoo am diggante bu bu soree diggante góor ñi ak seen njaboot ba nga xam ne góor ñi dañuy wattandiku njaboot yi ndax dañu leen di sonal ak seen wax ju bari ak seen coow nu bëgg a mucc ci loolu di leen sori ñoom itam ñoo ragal nu rus nu ba nga xam ne bu ñu nekkee fi duñ am liberté bi ñu war a am pour jëf li ñu bëgg a jëf loolu day daal doon ak yàq faw ñuy jaxasoo ñoom di leen yee ci yooyu yëpp non suñuy waajur buñ dikkee fii itam waxtaan nañ ko ay yoon suñu digganteeg suñu moroom mi liggéeykat yi jógee ci réew mi ñëw fi nu rafetal suñu digganteeg ñoom def leen ay mbokk di yëgoo ñoom yu bari kenn ku ci nekk boole sa bopp ak say moroom ngeen xam ne jullit ngeen yéen a ngi jóge ci réew mu sori bu ngeen ñëwee fii dangeen war a nekk benn di sottante xalaat jullit bëpp boo ci xam ne xamal na moroomam lu koy lor mu wax ko ko ci sell ci waxin wu nooy wu rafet ba nga xam ne kenn ku ne da nga wóolu sa moroom ndax gis nañ ne yu bari yoo xam ne yàqal nañu moo di ci anamug yar ndax mag ña dañoo amoon xeetu yarin woo xam ne ku ci jógee nii tubaab yi yewwa te jaaruñu ci lislaam nga xam ne seen yewwuti gi dañoo jàng adduna ba mokkal ko waaye jànguñu diine nga xam ne jekk nañu adduna mën a inventé lu ne mën a def luy indi xaalis mën a indi lu yéemeeg lu rafet waaye lu ñu développé développe li ñuy wax banditisme du fa jóg mukk ñiy rey nit di yóbbu seen alal ñii mere nit fay ku leen ko reyal ñi nga xam ne dañuy def loo xam ne lii day lor seeni moroom te bu deen dee jëriñ rek seetu ñu la ca des nga xam ne diine ji ñu amul moo leen ko yóbbee nga xam ne lu ñu développé développé di naaw ci jaww ji di dem ci biddéew yi di toog fii di xam lay xew fu nekk di jàngloob nit ñi xotti biiru nit dindi jàngoro ji denc loo xam ne du yàqu mën a defar yooyu yëpp waaye mën a gu ñoo fexe ba dominer seen bakkan ba nga xam ne dëng-dëng yooyu ak yàqu-yàqu yooyu ak xeex yooyu ak xuloo yi ak reyante yi ak sàcc yi ak attekat yi nga xam ne dañuy dëng farak koo xam ne amul dëgg yooyu yëpp du dañ mukk ci ñoom ndax diine rek a leen manqué nun nag nu jóg nun xam-xam boobu ñoom ñu am ba mën a jekku adduna amuñu ko yar bi nga xam ne diine nu ko jox itam suñu mag ñi daan nu ko yar noo ci ko fàtte ko bu buñ demee ca réew ma ak buñ xaw ma buñ ñëwee fi waaye buñ nekkee ci réew ma télévision yi dina wan xale yu dëng suñu xale yi di leen ñee defe ne ñu civilisé lañu wala ñu mat a lañu di watoo nu ñuy watoo di doxee nu ñuy doxe di waxee nu ñuy waxe mun noo ngi fii yëgunu dafa xew fuñ toll ñu ngi ci stade bi football tennis basket rig lépp luy fo rek nga xam ne dañ lay romb jëm ci stade bi nekk ay groupe buñ ñibbisee kenn du nekk yi foo demoon ñu yaroon ak yar boobu ba noppi nag tubaab yi ci seen bopp xam ne noo ngi yàqu mu dimbali ñu ci yàqu bi ngir gën noo yilif ngir gën noo moom fexe ba du ñu yar suñuy doom nun ñoom nag ñuy yar seeni doom fexe ba njàng mi yàqu duñu duñu jàngal suñu doom ñoom nag ñuy jàngal seeni doom fexe ba jéem noo def ay xar ak i baahima yoo xam ne not ba faw li am njariñ ci sunum réew te amunu xaral ak man koo jëfe ba jëriñoo ko maanaam li ñuy wax matière première ñoom ñu di ko jël di ko manufacturer dinu ko jaayaat duñu gën a ba faw nun réew yi jullit ñi bi nu tubaab bi moomee sax danoo amoon ay xaal yi yoo xam ne ci l'islam léegi atte ci lislaam amatul jullit bu nekk ñi ngi koy atte ci atte tubaab ñu dem ba nga xam ne léegi li nu waroon a jëriñ lépp dañ ko wëlbati mu di nu lor bëgg noo def ay bàyyi ma ngir gën noo yilif seetuñu ko du nu delloo seen xel mukk ci loolu du nu seet sunu réew mi daaw ak daaw jéeg na mel ak ni mel ren du ñu seet nit ñi mag ñi ak xale yi nu ñu sopp koo wet gu ñu jëm ndax ñi ngi gën a baax ndax ñi ngi gën a yeewu ndax ñi ngi gën a xam àdduna ndax ñi ngi gën a am diine ndax xale bi mu ngi seet ëllëgam ndax xale boo xam ne jàngaluñ ko jàng daanaka xewwi na yaruñu ko jàngaluñ ko métier amul diine te léegi réew yi ci des yi ñuy sàkkoo ji du waxtu wala neexee dem visa yi dafay jafe kooku fu mu jëm bu màggee na muy mel bandi dof bandi buy reyee di fab alal lu ko ba nga xam ne fii ñu nekk yoon wi ñu jaar te dara wàññiwu leen gisuñu dara lu leen war a wàññi dañuy dem ba mel ne ay baayi ni ñu defoon Martinique ak Guadeloupe lañ ñuy mujj dem suñ diine jii day mujj dañ ndax tur wi rek lañ ci am ku nekk xam na ne naar yi diine dañ koo mbubboo ba nga xam ne koo ci ne doo jullit mu àttan laa rey waaye benn jikkoy diine amuñu ko daray diine amuñu ko looloo leen tax a yembare yembare gi ñu yembare ba nga xam ne alal ji ñu am pétrole beeg lépp te jëriñu leen dara dañ leen di jilif di leen not ba fàww rek Sénégal nag di réew mu doy waar léegi kon suñu digganteeg réew ma lu mbir jafe-jafe-jafe nit ki bu ko xamee te def ci itteem jéem koo dindi yàlla mën na ko cee dimbali lu jóge ci bu nu ñëwee fii dafa naa ne dégg ngeen ko ay yoon waxtaane naa ko fi sama yoon wale woon ne yéen lañuy ñuy réew mi yéen lañuy ñuy xoole diine ji kon moodu bi na fexe ba bu mu tooñ réew ma bu mu tooñ diine ja bu mu tooñ yoonu murid wi ndax noon yi bari nañu ñii wuuteeg yow xalaat bari nañ ñii wuuteeg yow jëmuwaay bari nañu du ñu seet li baax ci yow ñu di ko wax dañuy seet la bon ci yow ñu di ko wax te dañuy fekk benn sénégalais boo xam ne mel na nu dëng wala mu def nu dëng wala fi mu nekk mu yàq ko wala mu leen jëflante mu jëflante boo xam ne jugul te réew moo dem ñu jubal nga fa am ñu jubul ñu daal di boole sénégalais yëpp ci benn saak te noonu lañu mel sénégalais yi ñu dëng lañu ñu bari coow lañu ñu bari wax lañu ñu jubadi lañu ñu salte lañu ñu mën a tooñ lañu dëkkal leen néeg yu nekk bu delloo ci mbirum jaamu yàlla moom laa yukallifu laahu nafsan illaa wasaha suñ borom tegul benn jaam lu mu mënul waaye nag li nga mën lépp teg nañ la ko te daañu la ko laaj ëllëg loo ci bàyyi rek bu ëllëgee boo la yoo ñu yey la am na ci ñoo xam ne seen liggéey dana jafeel ñuy julli ci waxtu wu nekk julli bu nekk ñu ko def ci waxtu wu nekk di làpp maanaam ànd ak njàpp ci waxtu wu ñu war a ànd ak njàpp ñu am yenn yoo xam ne ci ay ñam yu ñuy lekk wala yu ñuy jëfandikoo lislaam tere na ko loolu buñ ko seetee mu di ay difficulté yoo xam ne daanaka daj na réew yi tubaab yépp jullit ña fa nekk Paris xam ngeen ne maanaam France ay million yi jullit dafa nekk xeex nañu ba tàyyi ngir am abattoiru jullit boo xam ne dañuy rendee ni jullit war a rendee ñi soo koy war a mën a lekk xam nañ ne bépp yéefar boo xam ne ci ahlul kitaab la bokk maanaam nasaraan la muy chrétien wala muy yawut bu rendee na ko diineem sante jullit bi war na mën na koo lekk bu rendee na ko diineem sante mu rend waaye nag dafa cee bari ñoo xam ne léegi ñoom seen bopp seen diine itteewootuñu ko dañoo topp civilisation occidentale bi ak modernisme ba ba benn ñuy fab marto weñ dóor ci bopp mu daanu dee wala yeneen i reyin yoo xam ne l'islam santaane wu ko christianisme santaane wu ko maanaam nasraani santaane wu ko judaïsme maanaam yahudi santaane wu ko bu boobaa foofu la jullit ñi amee ay difficulté ñu xeex ba am ci réew yoo xam ne am nañu ay abattoir ndax jullit ñi dañoo bari léegi lool ci réew yi tubaab yi diggante boobu kon bu fekkee ne am nañu abattoir yu jullit am ay restaurant yi jullit problème dootu am amoon toll woon nañu jamono yoo xam ne yooyu yëpp dafay jafe ndax jullit yi ay benn te boolewuñu seen bopp te dañoo néew boolewuñu seen bopp ba nga xam ne mën nañoo sàkku dara am ko wala ñu yëkëti seen baat ñu dégg ko euh, faj seen aajo ca jamono yooyu nga xam ne kon julit bi amul menn pexe lekk lu ñu rendi rendi ko dagal mënu la demit ci restaurant boo xam ne dañuy togg loo xam ne euh, lu julit war a lekk la ñooñu amul woon pexe daruri la won xam ngeen ne nit jullit dana dem ba lekk medd dagan ci moom dana dem ba góox sàngara wanaasu ko dagan ci moom loolu mooy daruri bu nu demee nag ma xam ne yu yëpp euh, maanaam moodu yi bari nañu lii gën a mën a gaaw résoudre seen problème mooy rek ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañuy am seen baat man nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am seen ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañuy am seen baat mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am seen statut boo xam ne dañ koy reconnaître yu bari yoo xam ne yu leen di naqari la buñ ko distaanee mu dañ tey ñoom seen bopp daañu am ay problème yoo xam ne seen morom yu bokk ci ñoom ñoo koy indi yooyu itam bu fekkee ne def nañ seen bopp benn rek ba daje daañu ko mën a dindi dindi boo xam ne bu yomb lay doon waaye mu amati nag kon yeneen i problème yoo xam ne daf fi xew te nit ki bëgg a nekk jaambur euh, gisee ko ne bu ma waxee lenn wala bu ma defee lenn dañ naan ma dangaa tooñ mooy jàngoro yi gën a bon dana am nit ñoo xam ne ñuy góor wala ñuy jigéen dañ naan yoonu kenn nekku ci ñu ñëw fi doxale noo xam ne doxalin bu gënul lay doon ñu ne yoonu kenn nekku ci loolu kiko def mom bopam rek lay lor day yem ci mom ñi ci def seen yoon neeku ci bu fekke ne ànduñu ci wala dimbali wuñ ca ànduñu ci wala dimbali wuñ ci lor ñu ne kon legi ñi nga xam ñoo nekk fi te li ñu nekk melni na ci kaw seen yene liggéey lo tedde lo defé say gar ndax nit ki di si ngeen ko ci masaalikul jinan lu mu sangé ab deram sax manam bañu war ko xass sax ni sarax la mel dafa am tiyaba nit ki day wax wax kat la moko joxul dana ma ngagne nga di as jor gor di julit la nga yëkëti jox ko ba dula ngagne mu ngi melni sarax dana fekk saw der ba nopi nak te dana la jox ay sarax ëlëk waye sarax ñu dem ba am yu ñu yàq yoo xam ne nañ ca am tuyaaba te dootuñu ko ci am ndax sarax li muy am am doole ñu la day fekk deegu ñaaw di fekk muj bu ñaaw di yombal jéggi siraat di leeral bàmmeel di dindi tiis wi di woyafal taxawaayu bis pénc ba waaye benn fukki sarax benn bor benn leblee ku gën kooku luñ ci jublu dimbalante bi waaye boo demee ba koo lebal du la fay yàq nañu boobu boobu tuyaaba kenn wóolootul kenn ci ñàkk a wóolonte gi dinu nu yàqal lu bari ci sunu adduna ak ci sunu àllaaxira ndax gis ngeen tubaab yi ni ñu xamee adduna bis bu ne ñu waxtaanee ko bu ñu demee ba xam ne kenn nit mënula am wërsëg woo xam ne dana dal di taxawal entreprise bu mag ñoom dañuy associé waaye liy waral association mooy wóolante te wóolante lu koy indi mooy nit ñu jub li kenn ki mënul ñett ñeent juróom bu ñu dajaloo mën ko fële ca Amérique New York gis nañ fa ay société yu taxawal yoo xam ne ma nga mel ne tubaab ya taxawal te ay nit ki ñu dong ko fa taxawal waaye dañoo associé nit ñu wóolante ñu def ko la waaye bu fekkente ne ah, nit ñi dafa bari ñu dëng ba nga xam ne boo bokkee kenn ah, laaj yi kat defe naa bu ma kilee gën a xaw a ah, ma gàttal kon daal ci li nga xam ne moo laal diine ji ci boppam rek nit ki na fexe ba duñu xas diine ji mu nekk na fexe itam ba jàng lu tuut tuut ci ay farataam ndax dana am ay nit ñu dëkk ci réew mi di ay italien bëgg a xam diine lislaam na mu mel ndax dem nañ ba diine ji nekk doyatu leen ndax doyul kenn doyatul kenn kuy gëstu doyatul kenn kuy gëstu ñu bëgg a seet nag lislaam bu ñu laajtee waaye julit bu ñu laaj du leen wax dara lu dugg seen bopp dañuy daal defe ne l'islam kon mu ngi mel ne diine yooyu barki démb rek ñaari italien yoo xam ne dañoo ànd ak benn pakistanais ak benn wolof italien yi dañoo tuub xam naa gis nañ ñu leen convaincre ba ñu tuub bi ñu tuubee am na ci kenn koo xam ne kii wahabiyoon yi dañoo yàq bopp bi ba détourné ko bi ñu ñëwee démb waxtaan nañu ba mujj indatul benn argument mu ne dana fi dellu si ndax di laaj ndax dana fi yàgg toujours muy ñëw ma xam ne li mu wax dugg na boppam léegi nag bu fekkente ne jullit ñi dañoo bëgg a liggéeyal lislaam mën nañu fee am ñennati nit ñoo xam ne ci sellal dañoo xam dara ci njàng wala ñu xam lislaam ñu sàkkal leen place ñuy jàngal seeni doom di jàngal mag ñi sax war nañoo jàng ndax njàng moom du weesu mukk ci kenn minal mahdi ila lahdi la di berso ala tomb ñuy jàngale bind yi sëñ tuba bind te bind ko lu dul bëgg ñu jàng ko ay jawharu nafis ay saadatu saadatu tulaab ay maxaaliqu niiraan ay naju xaaja ay taqribu laq sax kenn mënu koo lim ba mu koy bind man mu toll ne sëñ Tuubaa ak ni mu ñàkkee jamono lu mu toog di ko bind ay ay heure yi heure ak i bis i bis lu am solo la lu am njëriñ la te dafa ne warlu na murit yi dana leen bindal lépp li ñu war a xam ci seen diine ñu seet ñenn si nit ñoo xam ne jàng nañu yooyu ñu nekk fi lu bon bon weer wu dee ñu yëkkati am lu ñu leen jox ñu mën a jàngale sàkk fi daara xamal moodu yi ak ñi nga xam ne benn ñu fi juddoo la wala ñu fi indi te weesoo gu ñu loolu te kenn weesoo gu ko ñu jàngal leen si diine xamal leen lu bari ñuy waxtaan ñoom bu ñu dajee ci jéem a jub am amaana bu baax ba nga xam ne ñi fi du ñu leen yàpp du ñu leen indil ay problème ñu bu ko defee loo xam gannaaw ñoom xamaguñu yenn yi ci bari euh, sunu yëkkati gi ñu yëkkati ay xasaayit ak i nodd xamu gannaaw bokkuñu ci diine ji te xamuñu loolu noo maslaha kuy yoot di saqat fexe ba mën a ànd ak ñoom xam mën a déggoog ñoom wan leen nag rafetaayu suñu diine raf wan leen rafetaayu yoonu murit ak li muy jëriñ xamal leen ko dana am solo lool ndax fee mu nekk amérique moom yàlla def na murit yaa nga fay dem am na yeneen ñi jullit tamit ñu fay dem ñu mel ne que sëñ Assane Cissé ki ñooñu ñu bare ngay tuub xam ngeen ne Touba ay américains yu bare nga fay ñëw yooyu yëpp nag ba ñoom euh, góorgóorlu nañu ba bind jënd fa kër goo xam ne dañu ko bëgg a def centre di fa jàngale xasaay di fa jàngale diine di fa xamle itam yoonu murit ba xam ne américains yi nga xam ne dañuy am curiosité maanaam dañ ko bëgg a xam l'islam na mu mel ak yoonu murit na mu mel bu ñu fa ñëwee ñu xamal leen ko bu ko defee jaaxle bi ci nit am bu ñëwee ñu wan ko ko dana xam ne lislaam a gën a mat diine yëpp te dana xam ne yoonu murit itam tariixa yëpp moo leen gën a mat ko defee ñu bari daañu ñëw li ñu jafeeloon fii danañ ñu ko yombal daañu ñu mën a may loo xam ne lii seen wuñ yoon ñu may ni ko bu ko defee daanu fi mën a installé bu baax def fi lépp lu ñu fi bëgg a def te daañu ñu ñeme jaxasoo mun xam ne seen njariñ la ndax euh, italien yooyu ñëwoon xam nañ léegi rafet rafeti lislaam yoo xam ne ñoom yaakaar naa ne kenn kenn mënatu leen a génne ci ci diine te it attan nañ cee def lu ñu am kenn ki sax moom Baay Faal la doon naa wax yow yaa leen ah Lamp Fall waaw euh, yu mel noonu liggéey boo xam ne liggéeyal diina ji ne liggéeyal sëñ Touba waa waa Amérique jënd nañu këru sëñ Touba waaye teewul dañ ne nag dañ fay def léegi centre centre culturel islamique boo xam ne waxuma sax waa réew ma jëlal naa waaye murit yi seen bopp daf leen di xamal lu bari ci yoon bi xamal leen lu bari ci diina ji te dana am njëriñ lool kon di leen faral di daje di waxtaan di satante kaddu di seet lu ngeen di lijjanti tax tubaab yi yore wuñ aduna dudul dul ay réunion manam ay daje sotante xel ba gis lu wér ñu tëral ko am kaddu itam rek nekk ca benn da ngeen a fii ngeen ñëw mën ngeen fee jihaar mën ngeen fee liggéey lu bare bare bare loo xam ne da ngeen di mel ne ñu àndoon ak sëñ Touba di xeex ca ba mu mettee ndax metti metti ngeen fekk ak jafe jafe bu ngeen fi tasaare diine tasaare fi yoonu murid da ngeen am tuyaaba ju toll ne ji ñooñu amoon waaw laaj bi war a ko noonu rek ndax jamono ji lee mu jeex euh, sëriñ dañuy laaj ci xeeti xam-xam yi nga xam ne danañu koy gis ñu di ko bind ci téere yi rawatina ni nga xam ne noonu noonu la sëñ bi waxee ne وأفيد العلوم للقلوب علم العبودية والربوبية ما laaj علم العبوديه وعلم الربوبيه وعلم الادنيه وعلم الدرايه ndax dañu nek ay tabaqat yo xamne da ngay am bi door a am be ba kero nga yegg ci bu mujj bi ak mourid bi nga xamne bi dafa jóg di wuta xam lan gan sel ak fan lay jaar ba mën tuufu ci xam-xam yooyu waaw ah, bismillah dafay laaj ilmul ubudiya ak ilmul rububiya bi nga xam ne xam ngeen ne moom bu ñu ko waxee mooy ki jëm ci yàlla rek ki wàcc yépp ne ci yàlla laa jëm moom la murid mooy ki nam manam muridullah ki nam sun borom yoonu seigne touba wi ñepp dañu bëgg dem ci yalla tam tudde ko yoonu murid ni nga xamni mom ci bopum murid la won bi mu aggul ci way ba ba mu agge fa mu àgg nag dootu murid ken dootu ko wax murid wasil lañ koy wax moy ki ag ci boromam sirk ilmul ubudiyya al ubudiyya dafa am al ubudiyya dafa am al ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu ñet lañu yo xamne yu dend lañu te di ay darajaat yu sutante al ibaadatu martaba ki nga xam ne ragal na boroom dëgg dëgg ragal xam na muy jaamoo suñu boroom ci sellal xam ne xolam bii génn na ci lépp lu dul yàlla buy jaamu yàlla dana teewlu teewlu koo xam ne day mel ne mu ngi jàkkarloo ko suñu borom tabaraka wa taala bu taxawee du julli bu kàbbaree ni ko suñu borom tiimee janloog léppam daf koy yëg yëg goo xam ne dana jóge ca julli ga di yëg suñu borom yëg goo xam ne day mel ne day janloog moom lépp loo xam ne jëm na ca loola day mel ne suñu borom ngi dox ci digganteem ak loolu ba bu dee lu jub du ca ñemee àgg bu dee lu muy def dana ko sellal ndax seede gi muy seede ni suñu borom teewee ci xolam ba mel ne dafa teew dugg ci cëram yépp mooy al ibadatu العبادة العبودية موجة وقت وخمين جم جي ويسنا فوفو بأقل يجي العبودية العبودية جم جي دفع جوخ لبتم برمم بغا خمين لم خول برمم لكي جيس ndax yàgg def tafakkur ak tazakkur yàgg xalaat sun borom ak yàgg tudd turi sun borom yi di wéet di sikkar di sikkar ba sikkar si muy sikkar tur yàlla wi jaxasoog yàppam ak deratam ak ay yaxam ni ko sëñ Tuubaa waxee nga xam ne boo ko defee danga nga ay kéemaan yoo xam ne ay kawti fi yàlla lay doon yoo xam ne léegi sa ruu mu ngi bëgg a not maanaam sa ruu ruuxaaniya mu ngi bëgg a not sa jismaaniya maanaam sa jëmm yaram sa raw yi ëpp ne ko doole ba nga xam ne daanaka Cheikh Abdul Wahab Sha'rani yu mu ngi nettali waxtu ba nga xam ne daf daan yéeg ci terrasse jàkka ji guddé bëccëg di sikkar di julli di jaamu yàlla ba nga xam ne buy dox day yëg woyefaay gi mu woyef ba nga xam ne daanaka bu jéggiwul tànkam it tànkam day jéggi nga xam ne booba xam na ne yëg na ne roo gi ëpp na doole léegi yaram bi maanaam jismaniye bi léegi rawxaaniye bi ëpp na ko ëpp na ko doole ba nga xam ne léeg-léeg day yëkkati ko dégg ngeen wala gis ngeen ñu ne Cheikh Abdul Qadir Jilaani radiallahu taala anhum ajmaina bu masaan jàpp ba jëm ca jàkka ja day dox ci jaww ji loolu rawxaaniya bu ëpp doole jismaaniya lay doon ba nga xam ne nit ki mën na bëtt miir bi te du ko yëg buy xool dana gis la ca gannaaw miir bi te ab gisam daf koy jàll ndax ruu dafa ëpp doole jëmm te ruu dara mënu koo fekk dara mënu koo téye dara mënu koo limité yemul fenn boo demee ne ba nga xam ne ruu gi ëpp na doole jëmm ji jismaaniya bi diggante boobu danga mën a toog lu jagg doo lekk mën a toog lu jagg doo naan gaañu am na si ñoo xam ne àgg nañ ci weer wu nekk benn doomu ñebe la ñuy lekk weer wu ne ndax roo dafa dund dund goo xam ne dundal na yaram bi li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne di leen lekk tey nelaw ndax melu leen ne man bu ngeen wooree bu ngoon jotee na ngeen dog bu leen sarale ni may def ndax man kat niroo maag yéen damay fanaan fa sama borom mu di ma leel di ma nàndal boo weesoo ibada ci sellal noonu nu ko waxe woon weesoo nga xam sa borom nga jox sa lepp ubudatoo ci tegu ubudatu nak moy tax nit ki sar sarale ba sun borom gorel ko tek ko ci kaw suuf si mu saña yar ku deung saña def lepp lo xam ne neex na ko ndax bu gisé asirul masun dootu mën def lu nakari sun borom te bu keroogee taxañal nañ ko jamono bepp la amone ba sun borom bindegul dara ak li amagul ak li am tay ñoy yam ci mom motax tax sëñ Tuubaa ne àllama nii maa qabla al khalqi man kana li bi karamin wa tilqi ki nga xamne dafa nek ci man ci teral ak ci boyal luma neex def luma bëgg am luma jëm man kooka xamal dama li xewon bam bindegul dara kana fi ama ni ko yonante bi sallallahu alaihi wasallam waxe da fekk amna ci yo xamne euh duñ ko meuna wax ci wolof wala buñ ko waxe du dugg seen bop du ngeen ko meuna deg waye al ibadatu al ubud al ubudiyatu al ubuda al ubuda mom bo ci agge sun borom gorel na la gorel na la horre horre bi sëñ tubaab di wax ci gàttal moy digeunte al ubudiya ak al ubuda borom al ubuda nak moy borom sañ-sañ bi nga xamne danaka daanaka nañ ko sharia waaye dana am teggiinu yàlla ak yonent bi li ñu tëral muy sharia bu bëggee nekk kaamil bu ci wuuteeg lenn li sharia daganal ca la yem lim araamal daf koy bàyyi bu fekkee nag dem na nag ba àgg ci fanaa u te eggagul ci tamkiin ak baqaa loolu dana foor fi moom ba du ko mën a mu wax ko ni ko xallaaj li taxoon ñu rey ko rey nañu xallaaj rey ibnu qasi rey ibnu sabain rey chehrawardi te ñooñ ñëpp dañoo demoon ba àgg ci yàlla foo xam ne li ñu jànloog moom la ñuy wax te li ñuy wax dëgg la waaye sharia mënu koo supporter ndax sharia suñu borom daf ko indi ngir ñëpp duñ ci fattal duñ ci ubbil benn bunt kenn mu sañ ko bëtt lu dul mu nëbb ko ndax xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu dafa am ay yonent ci malaayika yi am ko ci nit ñi yonent yi ci nit ñi ni ki yonent yi nu dégg ak yonent yi nga xam ne ay malaayika lañu ni ki jibril mu yónni ko ci yonent bi nga xam ne kon yonent bi lépp lu mu xamal ci jibril la ko jël lépp luy sharia ci jibril la ko jëlee ndax suñu borom moo yónni jibril ngir mu di yonent boo xam ne moo la yónni ci muhammad yónni muhammad nag mu yónni ko ci nit ñi waaye lépp luy baatin diggante yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina jibril xaju fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën naa jàngal sayyidina jibril junni at talim lim xamoon du xaaj ci loo xam ne di jibril xamu ko mikaayil xamu ko israil xamu ko israfil xamu ko waaye nag sharia moom bi nga xam ne ci nit ñi la moom suñ borom daf koo jaarale ci jibril mu jaare jaarale ko indi jox ko yonante bi jibril moo jàngal yonante bi nañuy jullee xamal ko waxtu yi kañ lay tàmbali ak fu mu yem xamal ko nañuy jàppe xamal ko nañuy woore jàngal ko alquran loolu nag dafay wane ne suñ borom sharia daf koo jaar ci mbirum suuf xam nga ne kaw suuf ñi fi dund di lekk di naan garab yi ne fi ak ndox mi amul lenn loo ci xam ne mën nga koo def te jaare wu li muy jàngal nit ñi ak lépp dafa jaare ci sharia ci aada ci loo xam ne lii du ànd ak baatin du ànd ak kawtéef day jaare ni mu war a jaare am logique nit ñi di ko gis loolu fu la tëral sharia moo tax mu jaare ko ci jox ko jibril mu yónni ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi jàngal ko nit ñi li ko ko jibril xamale yoon waaye nag bu dee mbiru baatin nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam du moroomu seydinaa jibril wala seydinaa mikaayil wala israil wala israfil wala kenn ci ñooñu kon ubudiya ubuda ibada loolu lañ ci mën wax léegi ci jamono bi mu gàtt asalaamaaleykum kii mi ngi laajte lan mooy illa maanaam li nga xam ne nii ni moo dox diggante la tax ñuy julli jullik ajjuma jahran maanaam ñu di ko dégg ñépp julli gi nga xam ne ni mooy tisbaar ak tàkkusaar duñ ko julli eh, duñ ko béral lan moo tax muy laaj itam mbirum armeel yi nga xam ne nii ni léegi dañ koy tabax di ko kaweel ndax dagan na ci sharia wala deet julli aljuma ak julli tisbar xam ngeen julli aljuma mo remplacer julli tisbar bo jullee aljuma do julli tisbar xam ngeen nak julli mom yal ak yalu ak duru mo ci am eh, yalu ñi ngi koy def ci gep julli go xamne gis na jant bi wala mu gis jeexiti jant bi niki suba ak timis tisbar takk sax bépp julli go xamne guddi la muy gee dañ koy biral suba gisul jant bi dañ koy biral timis noonu tisbaar ak takkusaan ñooy gis jant bi ñu ñoom la ñuy yelu ulamaa yi am ci wuute ndax ñoom dañu ne lépp loo xam ne sharia digle na ko te xamuñu illa bi ñu tudde ko taabut maanaam dañ koy def rek ngir topp ndigal jaamu yàlla waaye xamuñu lu tax xam ngeen ne sharia danay yoonal loo xam ne doom aadama yi duñ xam lu ko waral ba ñu toog junni at benn science découvrir ko wala nitu yàlla borom basira xam la ko waral am na ci yoo xam ne doomu aadama yi duñ ko xam ba mukk ba ba saa di taxaw ludul ñu dem ba àgg ci yàlla foo xam ne dañuy am al alfatxul akbar bu ñu amee alfatxul akbar dañuy gis lépp xam lépp man lépp ci mbirum sharia dañuy xam illa yi al usul yu ne ilmul usul usulul fiq mooy jàng di jàngale fiq atte yi yi nga xamne dañ ko xiyas wala yi nga xamne ijma la joge wul ci alquran joge wul ci hadith nga xamne dañ ko ulama yi dañ ko gisul ci alquran gisuñu ko ci hadith ñu neele ko ci niñ xamé xelum l'islam ak la bëgg ak lamu bañ ñu set ko ni bané kon dafa li dafa wara dagan wala dafa wara aram wala dañ ko wara sip ilmu ilmul usul mooy toppatoo yoy mo lay xamal illa ak sabab ak yoy yep ak àtte hukmu mu yooyu yëpp la koy xamal léegi usul yu ne fuqahaw yi xamuñu lu indi yalu ak biral usul yu ne yi xamuñu lu indi yalu ak biral rabbaani yu yi gis ne am na ci mbirum euh, julli ay secret yoo xam ne suñ borom xamalu ko jaam yi ñu gis ne buñ seetee ne ni ma waxee woon sànq ne dundu nit ki ak sharia suñu borom def ko aj ci àdduna bi ak yi lëkkook adduna muy jant bi muy weer bi nga xam ne ci jant bi la julleem yi aju weer yi ci la yi muy def yu mel na ka aj wala woor wala wori wala tabaski yëpp mu ngi aju ci yooyu nga xam ne sharia mu ngi mel na rek dañ koo tëralee àdduna ñaari doom nga ciy jël suba lii mën na la ne booy tëdd nga koy jël lii mën na la booy lekk wala boo lekkee ba noppi wala lii mën na la soo toogee naa nga muy fan nga xam ne médecin bi kon éléments yi nga xam ne moo composé comprimé bi wala sir euh, euh, sirop bi wala ampoule bi xam na élément bi ni muy jëfe ci organisme nit ki xam mu nit ki état bi muy toll ci waxtu wu lekkee ba noppi wala waxtu wuy bëgg lekk wala waxtu wuy bëgg a nelaw loolu yépp mu bàyyi ci xel ñu dank comprimé bi nga xam ne waxtu wi mu ko waree def jël bu ko jëlee dana jëf nii ci moom ndax organisme daf koy fekk ci état sàngam deretam daf koy fekk ci état sàngam mu war a combattre kon euh, microbe bi ba war koo rey ci secret jullikat bi ñu ne ko bu jant bi jàngi ko na nga julli ñeenti rakkaa yoo xam ne da koy yelu sëlmal bu jant bi demee ba nga xam ne léegi mu ngi ci diggante digg bëccëg ak jant bu so nga julli ñeent raka da nga koy yelu bu soyee nga julli ñett raka yoo xam ne da nga koy biral boo demee ba teg ci lu war a mat waxtu à peu près nga julli ñeent raka yoo xam ne koy biral bu subaa ñaar raka bu jant bi ba ba jant bi nga xam ne boo kabaree boo sëlmalee rek ñaar raka yi janloog jant bi ñu la foofu la waaye bu fekkee ne boo kabaree bala ngay julli ñaar rakkaay jant bi fenk kon julli woo ci waxtu waxtu wa jeex na booba da ngay a yéene fay yéene woo jox ñun nag buñ demee ci yaam noonu ko médecin bi gisee ak pharmacien bi ak éléments yi ni muy jëfe ci organisme buñ demee ci ruux ci ni yàlla bind nit dott ko ci suuf si muy dund dund suuf si a ñëw jaarale ko ci mbiri adduna bi suuf si ak yii ko tiim astar yi jant beeg weer yeeg biddéew yi nu seet ci ni nga xam ne noonu la munajjim bi seete ne bu fekkente ne biddéew sàngam toll na ci tolluwaay sàngam boo daloo mbubb dana lakk boo sancee dana def nii dana barkeel wala dana def nangam boo si jiyee nangam nga xam ne moom itam astrologue bi mu ngi koy calculer ci mouvement yooyu ak relation yi muy am ak nit ak influence bi muy def suñu borom tabaraka wa taala nag ak yonent yi nga xam ne dañoo ñëw ci adduna nekk ay médecin mbindeef yépp di ay malade adduna bépp di hôpital ñu war leen a faj ñu joxe seeni i ak seeni garab maye repos maye lépp loo xam ne lii war na ci nit ki fuqahaa yi taxaw ne nun nag àggunu foofa ru mbiru ruu moom buñ ca demee nu taxaw fale di seetaan nun noo ngi xam attey yaram yi attey jëmm yaram usul yi ñuy ne ñun noo ngi ci fiq dañuy seet faqih bi lu tax mu digle lii li tax mu tere lii noonu lanu loolu mooy suñu mbir waaye mbiru ruu xamuñu ci dara ana ñan kon ñooy étudier mbiru ruu ñu ne ahlu tasawuf mu tasawifoo ne du dana gudd may wax lan mooy tasawuf ak ni mu demee ak yooyu ahlu tasawuf ay illa yu bari lañ am ci loolu am na ci ñoom nag ñoo xam ne nee suñu borom rek ko xam ak yonent bi seen gannaaw képp koo xam ne gis nga sirrul masun wala nga am wusul da ko xam waaye doo ko sañ a wax kon buñ ko laajee benn waay bu xamul dara ñàkk solo tekkiwul dara jaamuwul yàlla amul xam-xam ne man mii ngeen di ma ko laaj li leen di wax li leen di wax nee ñu ne nag kon gis nañ ci lenn rek lu tuuti moo di gis nañ ci lenn lu tuuti lu tuuti nag te ñu ko wax it ndax ña ko xam ñemewuñ ko wax dañ ne guddi ak bëccëg seeni taasir maanaam seeni jeexital ci jëmmi nit ki ak xolam wuutee na ni bu guddee xam nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam borom ko innalak fi nahari sabhan talilan wazkur rabbaka bukratan wa asilan daf ko sant julli guddi nga xam ne julli guddi farata la ci moom julli yoor yoor farata la ci moom mu ni ndax sabhan tawilan bëccëg bi sa xel day séddalikoo ci yu bari ndax yonent yi ñu ko sant dafa bari moo war a nekk général bi jiite xare bi moo war a nekk itam qaadi ji atte moo war a nekk mufti bi nga xam ne ku gàtt ci moom ngay ñëw moo lay moo lay leeralal ba noppi te dafay borom kër war a lijjanti këram ba noppi mooy jiite julli gi di imam bi mooy lijjanti lépp loolu bu ko defee sa xel dana tasaaroo bala nga xam ne nag nga gën a mën a concentré dëgg-dëgg guddi ba ku nekk toog fa mu war a nekk yow rek nga wéet boobaa nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa dikk ci Sidna Omar fekk muy julli guddi di wax yëkkati baatam ca kaw mu ne ko loo jublu ci ni ngay taree ca kaw mu ne ko dama bëgg ñi nelaw yeewu ñi fàtte woon fàttaliku mu ne ko suufeelal sa baat tuuti dikk fekk sidna abubakar di julli di wax ndànk mu ne ko loo jubli ci wax ndànk bi mu ne ko dama xam ne ki may deeyaaleel mooy suñu borom dégg na lépp mu ne ko yëkkatil sa baat tuuti nga xam ne xamal na leen kon adabu al ibadati ni sëñ Tuubaa waxee ne al anbiya wa jamiul mursalin ma am taallamu minhu adab al ibadati ñun nag kon euh, ci waxtu nga xam ne nit ki day concentré muy waxtu suba sii si geegeeg yooyu nga xam ne yëpp day dal kenn ku ñu mu mën a jàng ca kaw bu ko defee yëkkati gi mu yëkkati baatam beneen jaamu yàlla lu boo xam ne beneen tuyaaba lay am sa cër yi koy dégg yëpp dañuy jël seen wàll te day leeral sa lépp bu dee bëccëg nag nga xam ne nit ñaa ngi coow yaa ngi seddalikoo yow ci sa bopp nga gën a boo boo yaroo ngay gën a mën a ci ci ñenn ci ñuy wax ci loolu astaghfirullah al azim xaw ma ca dara loolu daal laa waaw beneen kon am na fi ay laaj yu xaw a bari nag lool ba dem ci fukk ci gën am solo waaye dama ciy tànn kon yenn ci laaj yi kii dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci ab jullit mu tabax jàkka ci suuf soo xam ne si léwu ko moom kooku de gàtt na daganul mu ne bu demee ba di ko tabax lan mooy sarti jàkka joojee yan sart la war a am ba tax mu di ko tabax maanaam bu ko tabax bu ko tabaxee ba noppi waaw nit ki daganul mu julli foo xam ne sañu faa julli amul ndigalal julli fa borom ka ko moom mayu ko mu julli fa te euh, tabax ci suuf jàmbur dañ ko tuddee al xasbu xasbu buñ ko dee àtte ci sharia bu borom ñëwee bu porté plainte xawdi bi daf koy woo woo ci tabax ne ko yow suufas jàmbur si lu la ci tax a tabax bi ñu demee ba mu leer ko ne moom mi tabax moomu ko dañuy tànn loo ki moom suuf si benn dañuy seet tabax bi buñ ko doon toj ki koy toj liñ koy fay kii an grave gi di ko tuuri ndax su fas jaamur la nekk liñ koy fay lépp ñu génne ko ci mu jox boroom pàkk walla moom ci boppam boroom nangu jël tabax bi kiko tabaxone nango jël tabax bi ci kaw mu dédommagé ko lo xamné mom d'accord nañ ci rek bu néew néew buñ ca d'accordé até fëkk té moy dem def ci fi jaamu julli ci nak mom du mëna a dagan ndax julli am nay charte charte bu ñëk bi moy yow sa bop na nga lap sa yéré lap béréb bi nga nek lap nga jublu penku nga sutural sa awra li nga sol lepp li ñu wax lepp na laab na lew bolé ci bu ca bu ca loolu jógee julli ji dootu mën a am kon nag jàkka jooja kenn mënu caa julli kenn mënu caa julli wala nga xam ne bopp boroomam ki moom suuf si moo bàyyi ne d'accord bàyyi naa nañ ci tabax jàkk bàyyi naa la wala jox ma nangam ma bàyyi la ko boobaa mu dagan ndax jaay jënd lay doon beneen bi mu ne mhm. mi ngi laaj moom ndax alal ju araam tagan nañu aj ca màkk ak lan <laughs> ak lan euh, mooy aju mu ne ndax aj googee mhm. wax ju am important la nag mhm. mu ne ndax aj ga mhm. nangu nañ ko comme nañu nangoo aji ñel aj ca lu ca leew la waaw wala déet téere dañuy wax ne aj dafay farata ci nit ku nekk xam ngeen ne wax naa ne fiq moom jëfi saahir ji rek la àtte boo xamee alali jàmbur it nga aji ca yoon bu la ne demal ajaati ajuroo waaye nag leer na la ne ameel nga xàq ki nga aja ci alalam sa aj gi suñu borom du ko nangu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na benn bu lewul bu ci alal yi bu ne labbay ko suñu borom laa labbay ko wala fa aday ko kon ci sharia aji na kenn du ne ko aji woo di ko farata ji waaye nag tasawuf moo nuy xamal ne am na bàkkaar du kenn du nangu aj ga ba noppi tooñ na kii dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci ak jullit muy ñaanal koo xam ne du jullit mu keneen ki di laaj mu ne boobu laaj jeex na laaj ma toll ko mu bal waaw ku dul jullit mën nga koo ñaanal mu tuub mën nga koo ñaanal wér-gu-yaram mën nga koo ñaanal aj ga mhm. nangu nañ ko comme nañ nangoo aji ñel aj ca lu lew la wala déet téere dañuy wax ne aj dafay farata ci nit ku nekk xam ngeen ne wax naa ne fiq moom jëfi saahir ji rek la atte boo xamee nga aji ca yoon bu la demal leer na la amel nga xaq ki nga aja ci alalam sa aj gi borom du ko nangu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee benn dërëm bu léwul bu nekkee ci alal yi kii aj bu ne labbayka suñu borom ne ko laa labbayka wala sa'dayka kon ci sharia aji na kenn du ne ko aji woo defoo farata ji waaye nag tasawuf moo ñuy xamal ne am na bàkkaar du kenn du nangu aj ga ba noppi tooñ kii dafay laaj mu ne ndax dana ci ab muy ñaanal koo xam ne du keneen ki di laaj mu ne boobu laaj yàlla ma laaj ma toll ko mu doon waaw ku dul jullit mën nga koo ñaanal mu tuub mën nga koo ñaanal wér-gu-yaram mën nga koo ñaanal wërsëg bu ca dul lor jullit ca wërsëg wa waaye nag sañ loo koo ñaanal mucc wala texe waaw déedéet man sañ nga koo ñaanal mu tuub nag waaye daganul nga ñu ndegam wam loolu alquran wa ma kaana istixfaaru ibrahima li abi ila maw'idatin wa adaa fa maa tabayyana lahu an u'adda lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima awwaabi ndegam nit moo sañu la ñaanal baayam bu faatu te nekkul ci diine sañu koo ñaanal ab yonent sax sañu ko kon kenn daganul keneen ñaanal suñu borom jéggal ko moom moo daganul wala mu dem àjjana yooyu daganul nga ñaanal ko kii mu ne lan mooy gis-gisu lislaam ci wuute gi nit ñi di wuute ci weeri koor yi ci réew yi waaw euh, weeru koor yi weer yi moom li ma waxoon rek mu ngi deme ni ki rek julli yi xam nga ne bërëb bu la féete penku fa la julli di njëkk a jote weer wi feeñ itam xam nga ne weer yi moom du jóg ci asamaan si moom faw mu ngi fi léeg-léeg bu fekkente ne euh, jant bi jot na ko ba ba muy suux te wu wuñu du feeñ waaye bu ko jant bi rawee tuuti rek ba mu xaw a lëndëm bu ko jiitoo xam nga ne moom jant bi daf koo gën a gaaw dana wër dana ko ànd ak moom denc ba jotaat ko weneen yoon maanaam daw fanweeri yoon wala ñeent kii daw ñaar fukk ak juróom-ñeent mu jotaat ko jotaat boobu nag bu fekkee ne jote na ko fu kawe jant bi dana ko jiitu ba so mu xaw a lëndëm weer yu balay suuf ñu gis ko fekkente nag daf ko jot jot boo xam ne fekk nañ ñoom ñaar ñi ngi jegee so ñu soandoo wala jant bi njëkk koo sooyee tuuti wala weer bi njëkk koo sooyee tuuti du feeñ sharia nag li mu santaane mooy gis ci bët waaye yenn tegtal la nanguwul affaire euh, météorologique yooyu yëpp sharia wala kala yooyu yëpp sharia dàq na ko moom daal moom euh, réew yi ko gis rek war nañoo woor war nañoo wari war nañoo seen gàmmu seen tamxarit seen yëpp mu ngi ci aju ku gisul nag gisuloo rek loolu moom mënul ñàkk gis nga Sénégal euh, nit ñee ko def problème ndax nit ñaari dëkk dañ daan dend ñii gis weeru koor woor ñii bañ koo gis bañ woor kenn du ko def problème waaye bi nga xam ne dugal nañ ci rajo bi ak télévision yi ñu naan sëriñ sànga wax na nangam diw sànga bu ko defee féewale nit ñi lañ ci jublu tiijaan yi jaar fii naan murid yi sëriñ si la ñuy wooral murid yi jaar fii naan tiijaan yi gouvernement bi la ñuy wooral yooyu yëpp ay féewali la waaye dégg nga ñaari nit dama ne mën nañoo bokk benn kër kii yoon woorloo ko kii yoon bañ koo woorloo ndax ñaari seede ñu maandu la ñu wax waaye ki ko gisal bopp moom sañu te bañ a woor léegi bu ngeen bokkee kër bi yow nga teg ci sa bët war nga woor moom mi nga xam ne gisul ñaar ñu ko gis moom yor yoon woor loowu ko kooku moom dañoo mel ne ñu jàng sax dañoo mel ne jànguñu dara wala xamatuñu dara topp di coow rek di lëjal nit ñi waaye loolu moom jërëjëf sëriñ bi kon am na beneen laaj bu am solo mhm. ci ñun ñëpp mhm. boo xam ne ñoom sax dañoo wax ne bëggoon nañ koo def mhm. muy temu conférence bi loola mooy mu ne dañuy laaj xasaayid yi nga xam ne ñi ngi koy jàng mu ne ndax am na ay it yoo xam ne yi wareefu koo jàng ak lan mooy payub ñi nga xam ne ñooy jàng xasaayid yooyu muy wax mu neen am na ci it yoo xam ne dañ na sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba nafaana allahu bi barakaati yi mu ne mi ngi ko bindoon ci ama sahib naa bi karam mu ne ndax xasaayid yooyu dafa yitteel rek ca at mooma mu ko bindee wala dana doxit ci yeneen at yu dut at moomale loolu mooy laaju waa daayira bi nga xam ne moom lañ bëggoon nga nee na nga teqantal leen ci ba xam ba xam am na ci xasaayit yoo xam ne jàng ko dana lore wala du lore waaw ay yan maqa yan maqaama la yooyu am lu mel ne fulku foo mu ne xasaayit yëpp lañ mën a jàng xasaayit yi nag dafa am yu bari yu ci nekk ndax am na ci yoo xam ne sëñ bi bi mu ko bindee bëggul mu feeñ taalibe yee ko feeñal am na ci yoo xam ne am na naar bu ko ci doon laaj li mu ko tontu wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun bul topp sa loo xam ne sa yoon nekku ci xamuloo ca dara mënuloo koo xam xamal ko ne ko xaside googu sax day bëggumoon mu génn taalibe yee ko génn rek xasaayid yi ama shahid naa bi karam boobu nga wax sëñ Tuubaa ci boppam dafa bind ne la mu bindoon bi mu demagul ci géej gi lépp dégg ngeen ko ay yoon waxtaan nañ ko ba tàyyi suñu boroom nangu ko wax naa leen ñàkk ci ku demee ne sëñ Tuubaa ni muy demee yi nga xam ne nag moom la binda bi mu ci géej gi ba ca ama bi karam wane wax na ne ñoddi ak jañ la suñu borom nangu na ko gërëmal yàlla ci nekk yi nga xam ne moom la bindaat gannaaw gi ba bi mu fi jóge moom mooy lépp lépp la ci nit man ndax wax na am na fu mu ñaane ne defal sama xasida yi mu féete kaw sëriñu tërbiya ak sëriñu tarqiya waaye nag am na lu xew am na ci xasaayit yoo xam ne ngir nga jëriñu sa dëgg te bañ caa dana am ay charte dana laaj laab ak teewlu ak ndigal am na ci xasaayit yoo xam ne ki koy jàng war na cee ak ndigal am na teggin yu mu laaj ndax sëñ Tuubaa nee na lépp lu nit jëm te àndul ci teggin du ca jëriñu te du ca jële texe mu ngi gis ngeen ko ci bopp naxitu qadaa il xaaj gannaaw nag dafa ci am xasaayit yoo xam ne màgg na màgg goo xam ne laaj na teggin yu wóor ak xam na nga koy defee biri na xasaayit yi nga xasaayit yi nga xam ne moom tagg yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak salaatu ala nabi ngoo moom ngir ñëpp ku nekk la murid bu nekk ak nit nit ku nit ku baax ku nekk ak jullit bu nekk am na ci xasaayit yoo xam ne am na wet gu mu gu mu gu njëriñam gën a gaawe dañ koy faral di wax xasaay di nga xam ne salaatu ala nabi la àndal day tërbiyee di tarqiya xasaay di yenn yoo ci xam ne yii dafa mel ne que jëzbul qulub day xëcc xolu nit ki jëmee ci yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi jërëjëf Babacar ñi nga xam ne lu mel ni muwaahibu la day xaj xolu nit di ko jëmee ci yàlla ak di ko bëgg bëggloo yàlla ak yonent bi ak bi yu ci mel ne waqaani xafisun qaahirin jàllamaani wala yasmuka mina naasi boobu musluwaay la bu ci mel ne rahmaanu rahim boobu boo amee aajo ju la di ko faral di jàng dafa bari daal xasida bu nekk waaye yépp am njëriñ bu ci nekk yim bind gannaaw ama shahidna bi karam yépp ñoddi ak jëñ la lepp la ci li talib bi mën ku ci nal na nag ful kak jaalibatul maraaxib maraqib mom amna secret yu diis yo xam ki bu koy jang bu ci amé mané am ndigal mo gën te diko jang ko lap ak yéene ak jox ko teggin ci war bañ ko ëppal lol lol lol lol tax tru yalla la turu yàlla bu mag la bismillahi rahman te turu yàlla la mu bari na ñi muy lor ñi muy lor a ëpp ñi muy jariñ ngir tur yàlla day xaj xolu nit ki di ko leeral nit ki bu rooxam setee ba leer lépp lu mu romb mu mel ni seet rek sa suwar sa suura maanaam sa image daf cey dafa la cey iblis day dal di wat di naaw day dal di naaw di ko wër bu naawee di ko wër dana dugal ay jax-jaxal ci nit ki dana dem ba sikki sàkka ci yàlla tur yàlla dana tax nit génn ci lislaam sax dégg ngeen mbiru abu mahsar falak yi ak niñ koy waxe moo tax sikar tur yàlla ñu di ci laaj ay charte ki la ko jox na la ko war a jox fam la yemale yem fa lim bi mu la jox yem ca bu ko booleeg leneen boo bëggee àgg ci yàlla fekkee nag nit koo xam tuyaaba la bëgg rek moom day wut tuyaaba al isnul am moom bépp tur yàlla digal nañ ko ku nekk القرآن نمكو فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ذكر أكفكر فكر ñepp lañ مريد digal murid bu koy أنك na teewlu rek ànd بكبا yar ak teggin du ko jàng bu baax jàng am na lu ci sëñ bi wax ci masaalikul jinaan waaye tur yàlla boo ko dee sikkar te bëgg mu dugg la dëgg na sa jëme kaw moo gën ulama yi nee ñu ki nga xam ne dana mucc ci njistal ba bu dee sikkar ca kawit it du ci njistal sikkar ca kaw moo gën ndax keneen dégg ko roy ko mu am tuyaabam ak tuyaabay kooka bu fekkee ne wóoluwul ne mën na mucc ci njistal mu sikkar ci suuf loolu mooy seen wuute waaye wuute wuñ ne ki nga xam ne moom du njistal moom mu sikkar ci kaw moo gën ñeneen roy ko ba noppi ak cëram yi koy dégg yépp itam day am wa yaxudul kullu min al xawaasi qistan lahu min zikri rabbi naas ni ko sëñ tubaa waxee dafa wax ne su abdin fi makanin fahiri mustaqbal al qiblati za tarabbuci mu ne teggee ni tudd turu yàlla mooy na jaam bi toog ci bërëb bu sell bu laab mu ferankalaayu wala mu toogee ni kuy julli di toogee jublu penku jublu penku ferankalaayu wala mu def ni kiy julli aw mu tawarrikan kaman saa mu def tawarruk mooy ñi nga xam ne kuy julli noonu lay toogee buy taaya wàllam woo xam ne daf caa war a sonn ngir am ko te nit ci adduna du am lenn loo xam ne coono jiituwu ko te gën ci àdduna wute sa bànneex moo koy maye jullit bi day xam xel ne ànd ak bànneexam moo koy xañ lépp lu mu ñàkk te xeex ak bakkanam moo koy may lépp lu mu am mu xam ne wàññi boo gis ci benn lay tàmbalee nit ki mënula tëb gën ñépp walla mu tëb àgg fu kenn àggul waaye day tàmbalee li tuuti li mu mën te du ko bàyyi ab diir li ko jafe woon dana ko yomb doomu aadama suñu borom bind na ko bind boo xam ne li ñuy tudde ak tàggatu wet gu mu jublu rek mën na ci ca tàggat boppam ba àgg ci foo xam ne dañuy defe ne dug neen te fekk góorgóorlu rekk la yoon wi murid bi war a jaar nag sëñ bi xàll ne ko lépp lu mu fi war a xam xamle xamle na ko ci bind ci wax ak ci jëfam soog fiy jóge lu ci manki ci nun ñii la ci taalibe yi la waaye du ci moom bi ñu waxee nag démb ci mbiru àdduna li fi nekk ak li ñu fi fekk li ñuy teg suñu bët di ko gis di ko làmb di ko daj wala mu di nu xeeñ wala nu di ko yëpp lépp ci la sharia aju te lépp daf ko aj ci góor góorlu doomu aadama àdduna ji bala nga koo am dëgg da nga wuuteeg sa bakkan muñ coono góorgóorlu rawatina àllaaxira kon nag doy na leen rekk misaal sëñ Mourtada mii sëñ Touba ko jur mu xam li war a xam lépp mën a toog këram di jaamu yàlla defu ko yërëm leen di dugg ci avion yi di dem ci réew mu nekk ngir di leen xettali woo leen ngeen daje ci yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa di beesal seeni xol ngeen di ko gis muy toggoo coono yu mag ngir yàlla ak yonent bi ak yéen kon wan na leen yoon wi weneen wu yoon weneen yoonu waniin démb laaj yi am na ci laaj boo xam ne ndax léeg-léeg danaa dem ba xuus ci wax ba fàtte woon sax lu doonoon laaj bi am na ko fi laajoon diggante al farq na al ubudiyatu maanaam ilmu rubu ilmu ubudiyati waa ilmu rububiya benn xaaj bi laa tontu woon fàtte bi ci des fàtte saa jëm bi may génn ci saal bi sama xel soog a dem misaaloon nañu ilmul ubudiyati ci ni jaam bi war a def ba boroomam di ko xeeñ mu wéy ca bay daj boromam wéy ca bay gis boromam ci beuti xolam xam nga ne sun borom mom bët yi du ko gis ndax alquran neena la tudriku tudrikuhu absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa latiful khabir waaye nag nit dana ko gis ci beuti xol gis bo xamne day mo raw gisu beut ci ilmul ubudiyati bobu nga xamne ci la nit ki jaar di wéy di wéy ba ag fofu ilmul rububiyati di benen xam-xam bu sës mom ta am tuuti lu ñu waxte ilmul ubudiyya di tàmbalikaay la ilmul rububiyya mooy àggukaay bu la neexee nga ne ilmul ubudiyyati mooy baatinu sharia baatinu xaqiqa mooy ilmul rububiyya bu la neexee nga ne xam-xamu yont yàlla Muusa mooy ilmul rububiyati xam ilmul ubudiyati mooy xam-xamu Seydina Xadr xam ngeen ne Seydina Xadr suñu borom joxoon na ko xam-xam boo xam ne jot joxu ko woon booba Muusa alayhi salaatu wasalaam ba tax Muusa dox xam la muy defari xam kii mën a jëriñ xam kii mën a lor ku mu gis xam sa démb xam sa tey xam sa ëllëg xam-xam boobu Xadir xamoon te Muusa xamu ko Muusa dafa xam beneen xam-xam bu gën boobu moo di Xadir xam-xamu zaahir xam-xamu adduna la xam ci baatin موسى خم خم خم سنو بروم بني علم علم الربوبية أك علم العبودية في موتة علم الربوبية موي خم سنو بروم في أسمائه وصفاته خم سكري تري سنو برومي خم سكري ملو يمو خم سكري جف يمو جف تجاميه loolu mooy ilmu rububiyati ilmu ubudiyati ci ngay jaar ba àgg ba jeexal ko soog a dugg ci ilmu rububiyati ndax Seydina Xadir wàllu la woon yonent yàlla Moussa di yonent bu wàllu yu xamee lu yonent xamul it yonent bee ko gën a xam la gën a jëriñ moom mooy xam suñu borom kii xam mbindeef yi ak xam seeni secret ak ki xam suñu borom xam secret yi turam yi ak meloom yi ak jëfam yi moo féete ko ëpp daraja ilmu rububiyati mooy loolu le ma ne woon kon bu la neexee nga misaali ko Moussa ak Xadr bu la neexee nga misaali ko sharia ak xaqiqa bari na ay misaal lool asmaullahi turi suñu borom yi tur wu ci nek dafa am secret bo xamne amna ci jaam yi jaam bo xamne ci ca lay jëfënte ak mom ci ci tur secret tur yooyu lay jëfënte ak mom li nga xamne dafa am ci jaam yi ku meuna tuddu abdurrahman fa yàlla kii tudd abdurahim fa yàlla kii tudd abdul aziz fa yàlla kii tudd abdul hamid fa yàlla kii tudd abdul razaq kii tudd abdul jabbar jaam boo ci xam ne bi sakare ba mu la binde dafa aju ciw tur tur woowa jikkoom ngay amee aw meloom ngay amee nit ki nga xam ne dañ ko bind ci see boo mu tudd mamadou see boo mu tudd moussa waaye abdul razaq la tudd fa yàlla suñu borom daf koy wërsëgal ba di ko wërsëgal ci lu dul sabab ki nga xam ne dafa tudd Abdul Aziz suñu boroom daf koy teral di ko jox kàttan donte jullit la donte yéefar la donte melaw mu man a meloo ak tur wu mu tudd fi nit ñi du ci dara tur wa mu boo ko xam ne secret bi ci tur yàlla yi fa la taxaw loola mooy li li li nga gis nit koo xam ne du sabablu yàlla di ko xéewal nga gis nit kuy sabablu di sonn di sonn di sonn te amam aman du toll noonu nga gis nit ku farlu farlu farlu ci jaamu yàlla nga gis nit ku ko gën a néew farlu ba noppi gën koo jege boromam gën koo xam nga xam ne kon coobareel suñu borom ak jëflante bi muy jëflanteeg jaam ñi xam-xam boobu moo di ilmu rububiyati dafay xóot xóot koo xam ne gannaaw laaj yi bari na du nu mën a dugg ci détail yépp man koo misaal ba mu jeex wante kon ilmul ubudiyati mooy ni ñu ko waxee woon démb ilmu rububiyati moo féete fii kooku mooy laaj bi nga xam ne moo desoon démb laaj bi jëkk tey mooy suñu borom nee ñu yonent eh, si si Ahmadou Bamba radiallahu woo suñu borom ci xasaayid yi yaa rabbana di ko faral di wax ba muy juróom am na ci mag ñi ñoo xam ne nee ñu fépp foo fekk sëriñ bi takkaraar fa yaa rabbana yaa rabbana ba ak julli yi juróom li ci jublu maanaam sekkarab julli gu ci nekk ci nit nga xam ne sellal na àggal na jihaadu nafsi di teew lu ga ca war waxtu wu ci nekk ak na muy jeexitale ci xolam ak la muy def ci moom loola la sëñ Tuubaa def ci yaa banaa bu ci nekk ci juróomi yaa rabbana yi mu ànd ak juróomi julli yi nga xam ne benn bu ci nekk dafa ci ñaan suñu borom defal ko secret boo xam ne nit ki mënu koo amee lu dul ci julli tisbaar bii mënu koo amee lu dul ci julli tàkkusaan bii mënu koo amee ndax xam ngeen ne nit ki nga xam ne dafa xóot ci tafakkur ak tazakkur maanaam sikkar turu yàlla ak toog di fàttaliku tëraayu bàmmeel ak boroomam ak li ci kanamam bu kàbbaree di julli ndax tàmm gi mu tàmm xalaat ci yooyu bu kàbbaree di julli xelam dootu mën a dem ci àdduna mukk ndax tàmm gi mu tàmm wéet di xalaat suñu borom di xalaat bàmmeel di xalaat sukuraat waxtu kàbbaree xelam dootu dem ci daray àdduna tax tàmm na ko tàggatu na ci ba miin ko xelam day dem ci secret yooyu bu ko defee léeg-léeg dem ba secret yooyu muy xam muy muy ci xelam daf ciy teg bëtam di ko gis yonente bi sallallahu la wa sallam julli tàkkusaan ci madinatul munawara kabbar na janloog ajjana moo tax mu ne uridat alayya al jannatu fi ardi fi ardi hada al ha'it dem na ba jéggi benn jéego tàllal loxoom bëgg a watt ca meññet ma nee na benn doom rek bu ma ko ci wattoon waa Madina gépp daañu ci mën di doyal ko kon xam ngeen ne lépp lu suñu borom sant jaam ci jaamu yàlla am na secret bu ca nekk boo xam ne ñi nga xam ne ñoo àgg ci al maarifatu billahi te mooy ilmu rububiyati boobu suñ borom daf leen koy won di leen ko wuññil te nag nëbbu ko kenn xañu ko kenn nit kee koy xañ boppam moo koy may boppam ci góorgóorloom ni ma waxoon léegi ci tàmbali bi ne bari na yoo xam ne nit a koy xañ boppam ak yoo xam ne nit a koy may boppam nit ki wuuteeg bakkanam ak góorgóorlu moo koy may gannaaw yàlla moom am ñaari nit ñi bu ñu bokkee sëriñ bokk fu ñu juddoo maase bokk lépp kii gën koo góor góorgóorlu dal koy gën ndax wa kaanal afdalul mutafaddilu kii gën a kii fexee gën di jéem a gën ay morom moo leen di gën ba faw te gën aw yoon la am moo di tàmbalee ci li nga mën nga xam ne lii mën nga ko di ko yokk tuuti tuuti noo ci gën a yàgg gën ko mu gën a woyof fi yow nga di ko yokk ba ba ngay àgg ci dëgg dëggi baax waaye mënuloo tëb tëb ni nga xamee ne mënuloo tëb tëb jéggi benn jéego àgg ca dëkk bu sori naka noonu da ngay dox ndànk di jéggi ay jéego noonu ngay demee it ci yàlla noonu ngay baaxe noonu ngay tàggoog seytaane noonu ngay muccee noonu ngay amee it may yàlla noonu nga koy xamee. jërëjëf beneen laaj bi mu ne dégg nañu ñu ne nit yàlla yi ñu ngi ñëw ci àddina ah. ñaari yoon ñetti yoon. Mm-hmm. mu ne mm, dégg nañuy wax ne maa ngi ci wolof. Mm-hmm. ñoo ngi seede naa ne. dégg naa ñuy wax ne am na ku ñëw àdduna ay yoon te ak si mhm. nit ku ñuul mhm. loolu lu ñuy war a déglu lool lan tax dafa am lu denn ak moom te du dëgg am lu niroog moom te du dëgg te am ay nit ñu sa nekk li ñuy wax ci arab tanasaful arwaax wala li ñu mën a tuddee ci tubaab la doctrine de la métempsycose nga xam ne niroo naag xalaat bi yenn yennati sunu mbokki séeréer yi di am gëm ne nit ki day juddu bu deexee ruu gi day fekk keneen kuy judduwaat mu dugg ca ruu googee ni ko séeréer siy gëme ñoom dafa gën a lëkkoo jëmm ji ba nga xam ne nee ñu bu ñëwee nga sàkkal ko benn màndarga koo xam ne kii ay doom day faral di faatu mu am doom benn mu dagg ci baaraam bi tuuti wala mu gañ ko sakal ko magal ga boo bo xamne du du raf du raaf day feñ bu waté day indi boba waye do dootu dee ñom non lañ ko docteur metam métempsycose ci tanaasuxul arwaax mooy tanaasuxul arwah mom ni mu démé dañu né nit ki bu juddo roo jaxaso jaxasoog yaram ni yanu ko muy dund ben mu nek ci yoonu jup wala mu nek ci yoonu dëng ak lu mu mën a nekkee waxtu woo xam ne dund na ci àdduna ba am expérience xam lu bari mu dee ruu beneen bakkan di juddu ruu gi dem dugg sa booba waaye jaar gi mu jaaroon ci àdduna dana xam yoo xam ne ku njëkk ka ca la ko xamee woon bi mu duggee ci kii ànd ak xam-xam boobu nga xam ne koon ruu gi mën na ñëw nangam yoon te waxtu wu ñëwee gën a xam di gën a xam ba ba muy àgg nekk ci wàllu yi ba muy àgg ci nekk yonent ñoom dañoo gëm ne kon day ñëw ci jëmm ji jëmm ji di jaamu muy gën a sell di gën a sell ba am sellaayu jullit dëgg bu gëm bu dellu siwaatee am sellaayu waliyu dellu siwaat am sellaayu yonent ba ba muy jeex mu dem nag àjjana bu ko defee ruu nag set set gu ko mën a may mu mën a xéewlu mën a bànneexu ci leeri suñu borom mooy àjjana ruu yi nga xam ne dañuy dugg ci jëmm jëmm ji sàggan ruu gi di gën a tilim di gën a lëndëm di gën a ñuul di gën a ñaaw waxtu woo xamee ne borom dee na ruu gi di dellu siwaat day fekk tàmm na ñaaw ñaaw yooyu ak bàkkaar yu bon yi ak topp bànneex bi day dem ci beneen jëmm bu gën a yées di ko def ba mu àgg ci ruuhu bàyyi ba mu àgg ci ruuhu seytaane nekk seytaane doctrine métempsychose loolu la ñu xalaat nii nga xam nag noonu la awliya yi wax ñoom beneen niveau la beneen domaine la geneen anam la bu seetee al futuhatul makkiya daan gis ne cheikh muhiddin ibn arabi wax na ni maa ngi wër benn bis ci kaaba gi benn waay nekk sama gannaaw dëgg ci sama armal ma dabaatal ko geesu ko xool ko xam ne kii bokkul ci way dund ñi aji dee ma ne ko dama ne yow nitu fan nga bala ma laa laaj nitu lan nga kañ nga jóge woon mu ne man ñetti junni at ba ma jóge adduna ak léegi mat na ko ñu gis ne roox yi dëgg mën nañuy dellusi ci adduna geneenu dellusi xam ngeen ne am na roox yoo xam ne néew yi dañuy jaamu yàlla ci seen bàmmeel xam ngeen ne jullit wala mbindeef mu mu doon moom dana di boy ci suuf si di seeti ay waa këram di seet ay doomam di xam lu fa xew ndax miraas nañ ko ndax fay nañu ay borom yooyu waaye bu amee ñeen fukki guddi dootu mën jóge ci bàmmeel bi kooku bu ngeen seetee silkul jawaahir da ngay gis ne si Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu bind na ko loolu moo tax ñeen nag ñi di ñaan ñaanu ñeen fukki guddi ndax jul euh, aji dee ji bu dee ba am ñetti fan ñetteelu fan bi dafa am ñuy ñëw waaw euh, ñëw boobu nit yàlla yi di ñëw dana bari de ndax lañ wax dafa gudd wax laaj boobu benn wàll ñëw na nangam yoon ci àdduna waaye musul agsi ci nit ku ñuul moom lan tàmbali woon mu lëkkoog yeneen i xalaat yoo xam ne muy lan doon ak pas-pas bi nga xam ne xaw ma am na wala mooy sunu mbokki séeréer yi dañu jàpp woon ne nit ki bu deexee day dellu siwaat ci bañ a àggat ci détails yi ni ma ko waxee woon euh, defe naa ne enregistré nañ ko waaye xalaat bi nga xam ne nag moom la awliya yi di wax moo di ni ma waxee woon ne ruux yi ni leen yàlla may jullit ak yéefar ak dellusi bi ñuy dellusiwaat ba ba ñuy sax nag ca ëttub bàmmeel ya dootuñu fa jóge ci ñeent fukki guddi yi ni mu nekk ci silkul jawaaxir man nag awliyaaw yi ñoom du noonu ñoom seenu ñëw du ñëw goo xam ne dañuy dundaat ci àdduna ak nit ñi ba dee jotati ñu dee déedéet ñoom seen ruux mooy ñëw ruux bu nit ki deewee day amee melow jëmm ja li gën a bari ci jamono bu dikkee jëmm ji lu ci gën a bari bu feeñoo nit nit ñi duñ ko xam du leen xam bu dee ku yàlla may mu mën a feeñoo ba nit ñi di ko gisit muy jaamu la muy jaamu dana ko def te mu um mbindeef yi Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi bi ma nettali woon léegi mu waajo ju dëggoon ci armalam bi ba muy aj du woon nitu kese ko def te mu um mbindeef yi Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi bi ma nekk li woon léegi mu waajo ju dëggoon ci armalam bi ba muy aj du woon nitu kese waliyu kaamil la woon boo xam ne ci aarifoona billaahi yi gën a kawe bokk looloo ko may ndax mu ni ma waxee woon démb ne roo ci nit ki dana jaamu yàlla xam yàlla ba roo gi day maanaam roxaaniyaam day nopp jismaaniyaam ba mel ne jismaaniyaam amatul ay jamono day mel ne nekkatul ruuxaaniya ba moo fa nekk moo waral mu mën a gis malaayika yi di gis jinne yi di gis li ñu bind ci jëhi nit ki aji texe wala aji texee di seen ruuxaaniya xam ngeen ne ruux moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mayuñu ko woon ndigalal mu misaal ko wala mu waxtaan ci bi nga xamee ne laaj nañ ko ko alquran daf ko ways alunaka ani ruuxi quli ruuxu min amri rabbi wa ma utitu min al ñetti laaj la waa Màkka demoon ne yahood yi yéen yi nga xam ne jotoon ngeen ay téere yu jóge asamaan Moussa indi leen ko am ngeen xam-xam yoo xam ne mën ngeen noo tànnal ay laaj yoo xam ne ku dulub yonent du ko mën a tontu ba ñu demee ñu ne leen bu ngeen demee bu ngeen ko laajee ñett yii bu ko tontoo yonent la na ngeen ko njëkk laaj xale yi nga xam ne dañoo génnoon seenum réew réer lu ëpp ñetti téeméeri at dellu siwaat ana ñu ñana laaj leen ko ro lu mu doon ak luy nature luy tabia am ak fu muy nekk ci nit laaj ko ki nga xam dafa dàmme woon penku ak sowu ci ay mbiram ci ak noteelam suñu borom may ko lu mayul woon kenn si ñu ko jiitu ci wetu noteel bi ñu dikkee fekk yonente bi salaa sallam ne leen bu subaa ma wax leen ko te waxul insha allah suñu borom natt ko ca suba sa benn wax yu wàccul benn aaya wàccul ngir tontul ko xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko masaan laaj wala mu dem ba gis mbir mu mësula gis xamul lu ca yàlla namm alxuraan ay wàcc ne ko defal nangam bu ko yahud yi daan jéem a kole di ko laaj lu kenn xamul alxuraan mooy wàcc aaya ji ne ko ñi ngi la laaj nangam tontu leen nangam ak nangam bu saxaaba yi masaan dem fu sori mbir xew ñu werante nan la ñuy def bu ñu dikkee bu ñu ñibbisee dana fekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam jot aaya joo xam ne xamle ne xamle na loola lu ca war bi mu nee nag bu subaa danaa leen tontu subu si suñ borom bañ a wàccee dara mu toog weer ak nangami fan mënu leen a tontu ba waa màkka tàmbali di ñu waramtu lu ne ñu di ko wax di reetaan alquran ba wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah واذكر rabbaka ida nasita bul wax ci lenn ne bu subaa ma def ko te néewaloo insha allah alquran nag noonu mu ko misaale wax ne leen zul qarnayni ak fa mu jaaroon na mu def wax leen ashabul kahfi mooy xale yooyu أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من أتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقال ربنا أتنا من الكهف إلى آخره إلى آخره كن الروح موي نيتال بي القرآن نكو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي نيغي لاي لاج روح ني لين روح مbirum sa borom la mbirum sama borom la ndax joxuñu leen ci xam-xam lu dul lu néew li ngeen am ci xam-xam mënu leen a may ngeen xam roo na mu demee dëgg-dëgg kon secret la boo xam ne suñ borom xamlewu ko moom ci boppam mën na koo xamal nit waaye santul kenn nga xamle ko bi nga xamee ne euh, limaamul xasaali radiallahu anhu ci al masailu l xasaaliya fi l ajubati l oxrawiya question yi ñu ko daan laaj yëpp jëm yomal xiyaam bañ cee tuddee roo dafa ne roo de mayuñu woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndigalal mu wax ko kon nag keneen amul ndigalal waxtaane ko da nga gis euh, tafasir yi kutubu tafasir téere yi nga xam ne dañuy saa alquran ruux buñ ci àggee naan jismun latifun yaxya bihi l insaanu maanaam matière la bu woyof buy fe bu dul feeñ mooy dundal nit firiwuñu ruux ndax ruux ak ruuxul xayawaan yi dafa am mooy lii dundal lépp luy dund nit ak baahima ak ndogment ak lépp lu mu doon kooku moo ñoom moom la ñu firi waaye ruux bi tax ñuy wax nga xam ne doomu aadama ko jagoo ni ruu googu ñuy wax na muy mel ci jëmm ba dundal ko ruu googee noonu lay dundee dundalee ruu gi noonu lay duggee ci ruu gi ba may ko loo xam ne ñi am ruu gee rek amuñu ko am na ko ko laajoon sax maam Cheikh mu ne ko alxuraan moom mu nekk moo ko firi moom mu ne minam ri rabbi maanaam ndigalal suñu borom la mënuñu joowee si foofu way saloonaka ani ruux qul ruux minam rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalilan may ñu leen ci xam-xam lu ngeen mën a xamee kon li leen may ci xam-xam lu tuuti la bu leen laaj yi ci laaj na ko waaye ruux moom tontuwu ko léegi kon ci misaal toujours noonu lay def damay wéy wéy ba fàtte sax <laughs> laaj bi na mu demee woon ah, awliya yi noonu la ñuy waaye nit ñi duñ leen mën a gis ñii di jaamu ci seen bàmmeel ñii di fekk ji yeneen di jaamu ñii di aji ñii defi lu nekk nu yem foofu ci laaj boobu bu ci tegu dafa fekk sëñ bi comme li mu waxoon léegi tontu na ci tontooti ci tontooti ci am na ci benn boo xam ne ñëw na léegi muy waaji bind tubaab di laaj ruu ak yaram loolu waxoon nañ ko démb rek ci biir conférence bi sëñ bi waxoon na ko kon nañu jéggal dañ koy continuer bu dégloo bànd démb bi dana ko ci fekk mën nañ ci wax ba jant waaye soxla wu ko wax nañ ci waxtaan nañ ba tey kon loolu tax kii mu ne dafay laaj sëriñ bi téeméeri téere ak fukk ak ñeent yi sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba wax ne ñi ngi ko séddale ci diggante yonent yi sihsa aadama ibrahim idris muusa isa wa daawud sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam yooyu téere lay laaj ak leetar yi nga xam ne yónni woon nañ ko ci yeneen yonent yooyu isa kana samanu oh, seen jamono dafa nekkoon distance bu soree maanaam yi nga xam ne téere wàccul ci ñoom yonent xam ne téere wàcc ci ñoom dafa bokk ci li nga xam ne jullit bi war na ko gëm ngir ngëmam mat alkutubu samawiya ndax bu ñu la ma nee fukk yi gëm ko mooy tax ngëm dëgër alimaanu jësmun bil ilaahi wal kutub bi ñu waxee yàlla teg nañ ci téere yooyu leen limaanu jësmun bil ilaahi wal kutub war rusli ak yonant yi wala mlaak ak malaayika yi nga gëm ne loolu lépp loo am la ma baasin xarog nga gëm ne nit ñi daañu dekki bis wa qadarin nga gëm dogal bi dogal nag moom liñ ci war a mën a wax bari na lool nag waaye jamono du ko maye siraat ba ñuy jéggi ak i meloom liñ ci mën a wax bari na lool misaan balance yi yi nga xam ne ci lañuy ñuy peesee jëfi jaam yi ak nan la mel ak na mu demee ak na fa jaam bay taxawee ak xaal ba muy nekkee xawdu nabi mooy kawsara mbalka yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne way tax ñi dañ cey naan ëllëg bu ñu jéggee siraat ba safara wi lottal leen ba ñu wañsoo torax sonn tawat bépp xeeti metit nekk ci ñoom ñu naan ca dal di dundaat ba mel ni ku mësula am naqar ci àdduna wala xiif wala mar walla coono ajjana ak safara fukk yooyu kon kutub yooyu li tax sëñ Tuubaa indi ko tax sëñ Tuubaa dafa wax ne warlul na taalibe yi bindal leen ci lislaam ci sharia loo xam ne li ñu war a xam lépp nga ca taalibe yi waroon nañoo jàng téere yooyu sëñ Abdou Lahad atan darafaala na radi juróom-ñaari téere yooyu yépp ngir ñi ko jàngul ñi jàngul arab te jàng français ñu xam ko bu ci def jàng ko ndax Sëñ Tuubaa li war rek la ci def amul woon jotu dëkk bind rek ndax dafa am yeneen xeeti jaamu yàlla yoo xam ne daf koy woo waaye li mënul ñàkk mu bindal ko nii kon euh, téere yooyu yeneen yonent yi nga xam ne jotuñu ay téere yonent yi dañ ci am al anbiya wal mursaluuna mursaloon yi ñooy ñu yénn ci jaam ñi ñu war a woote war a joxe diine war a xam ne téere yooyu nag bu njëkk tawxid rek ci nekk tawxid ndax faral nañuy misaal détails yi day bari waaye euh, yonent yu bari yoo xam ne wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa lam naqsushum am na yonent yu bari yoo xam ne mosuñu dégg sax seen tur yonent bi suñu borom euh, xamalu ko ko wax waxu ko ko am na ci grec yi yennat yi boroomi xam-xam yoo xam ne am na boroomi gis-gis yu ne gis nañu leen ci àjjana te nit ñi xamuñu woon sax ndax gëm nañu yàlla wala déet mën naa am boo demee mën nañoo nekk ay yonent wala ñuy ñu fekk yoon jamono yi benn yonent te gëm leen kon yonent yi mënuñoo xam seen lim ak nañu toll ñi ci indi ay téere itam mooy adaduha qadun téeméer ak ñeent noonu mu ko waxee noonu la bokk ci tawxid boo jàngee tawxid da nga ko jàng ñi nga xam ne indi wu ñuy téere ndax gannaaw yonent ci téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni lañu ñooñu rekk jot ci téere ñi ci des jotuñu téere dañuy ñëw ngir beesal la ko indi woon téere sàngam te dem la mu jàngale woon ca téere ba benn daañu fekk téere ba raaf ba amatul ci kaw suuf xam ngeen ne ci jamono yu njëkk yaa njëkk a njëkk daay dana tàkk xam nga ni booba euh, pour ñu bind ci doj lañuy ñuy bind wala ñu bind ci xaritu garab amuñu leneen lu ñu bindee léeg-léeg mbënn mi ñëw ndox mi ñëw dàq leen ñu daw fa bàyyi ko mu lakk wala daay tàkk duñ ko àttan ñu daw bàyyi ko fa mu lakk ba nga xam ne faaw ñu ni beneen yonent boo xam ne mooy jàngale ci nit ñi li yàlla bëgg ñu xam ko ak ni ñu koy jaamoo yonent yi nga xam ne dañoo ñëw fekk yonent ñu joxoon téere la nangami téere nga xam ne tawhid a ci nekk nit ki na muy jaamu yàlla na muy xame yàlla loola koo ko jàngale woon moom lay fàttaliwaat moom lay beesalaat dindi la ca bokkul fàttali lañ ca fàtte woon kooku bokkul ci ku ñu yónni ci bindee fi waaye dafa ñëw ngir beesal nga xam ne kon ab yonent la waaye nekkul mursal koo xam ne dañ ko ne wooteel leneen lu dul lii keneen it mën na suñu borom mën na ko ci xamal leneen lu dul lii ñu laaj ko Muhyiddin Ibn Arabi moom itam bi mu ko misaalee ba noppi dal na lii la ba borom xamal ci jamono bii nga ma ko laajee jombul beneen jamono keneen nit mën na ko mën nañ ko cee laaj mu yokk ci leneen mu xam leneen wax ko ci bu ngeen bu leen soobee mën na ñoo laf kon laaj yooyu yëpp ñu dugg rek ci boobu ala nuuru samaawaati wal ardi rek dana yàgg lool waaye boo ko tàmbalee te eggul dana ci bari ngeen du ñu leer seen bopp bu la neexee nu ay minutes nu dellu ci waaw mi ngi dépensé nag mi ngi mbir maa ngi daal teguwaat ci seen loxo waaye xam naa ne am na ci ñoo xam ne ñi dañoo war a am fuñ jëm ak yitte yeeg yooyu daal ku jàng xam la laaj waaw ku ko laaj la moom wér nañu nañu ku xam la waaye euh, boo gisee ku la gën a xamit nga wax ko docteur bu gisee mu ñu koy waxee ab malade bu gisee ab docteur da koy wax jàngoroom loolu rek la waaye kon ñu dem ci yeneen laaj yi am na fi ku fi bind benn laaj di laaj moom it arab la bind di arab la bind laaj bi mu ngi laaj lan mooy teqalikoo li ñuy wax addiya muy li ñuy def ñun murit ak ak dox suñu diggante ak suñu njaboot loolu la laaj waaw maanaam daal dundal njaboot ak addiya xam ngeen ne ah laajee nañ ko démb de waaw hmm? kon nag ngeen jégal ñu moo ne laaj boobu laajoon nañ ko démb am na beneen beneen laaj bu fi am solo te gàtt lool waaye nan ci jublu ñun ñëpp danañu yitteel kii dafay laaj mu ne ndax yónnee asaka hmm. jëlee ko fii yónnee ko Sénégal dagan na hmm. ngir nga mën koo jéggil béréb bi yóbbu ko si beneen béréb am na ay charte gis ngeen ko ci masalik sax bu fekkente ne ki ku ko yeyoo la chart yi nga xam ne mooy tax mën a lekk asaka na ci moom ba noppi mu loru mu lot ci nga jéggi ko jox keneen koo xam ne dafa yem ak moom ci lot moom itam matal chart yi taaddi lañ ko tuddee mooy jalgati ñoomte la suma taaddi bi tasaddaqun xalat ni ko sëñ tuba waxe am na bàkkaar ndax tooñ nga def nga jalgati bu fekkente ne nag léegi fii nga nekk benn am nga sikki sàkk ndax mën nañoo lekk asaka wala déet nga amit sikki sàkk ndax charte yi matal nañ ko wala déet nga xam ku la wóor ne kii moom mën na euh, lekk asaka te néewu fi sori na fii nga nekk nag xamuloo fi ku la wóor ne mën na koo lekk nga yónnee ko kooka moom dara nekku ci asaka ji na fekk ne rek mu mu la fegal lenn loo waroon a joxe muy farata ci yow nga féetale fa asaka ja kon yow yaa lekk asaka ji asaka liñ ci sartoon jàngeen ko ci aaya ji innama sadaqat lil fuqaraay wal masakini wal amilina alayha wal muwallafati qulubuhum wa fi raqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bni sabili juróom-ñett ñooyu ñoo mën a rek asaka faqir ak miskin bi faqir mooy ki nga xam ne am na dara waaye amul lu ko doy miskin mooy ki nga xam ne amul daanaka lu mu reere waaye am na ñoo xam ne dañ koo intervertir walbati jox ki di atte jox kii di atte wala amilina aleha ndax bu fekkoonte ne gouvernement bi jullit la dañuy nommer ay fonctionnaires yoo xam ne ñooy wër di jël asaka yi ñoo ñu liñ leen di fay ci asaka ji lañ koy jëlee mooy wala amilina aleha والمؤلف القلوب هو لن يتكو خمني دفا جنگ جيم سي الاسلام نو خلات ني دنا توب واي بو خوا ام اي ديفيكولتي تا اي مبوكم ولا نيكوي ديغال ولا ني موي ديغالال دان سي يكتي جوخ كو غير ديمبري كو غير مو مانا توب وفي الرقاب جام بو خامني دافا بوجا جوتو سي با جام دي ام دافا بوجا جوتو اك كيكو موم جوخ كو لو خامني نينا كو بوما كو جوخي دال دي ليبر ولا زيد كو خامني اس غور لا bor yi wër ko mënu koo fay ba mu jaaxle wala aji tukki joo xam ne dafa jóge ci réew mu sori jëm ci réew mu sori jaar fi am na sax xëy na alal fa mu jëm waaye fii mu nekk amu fi dara lott na aajowoo na ko kooku daañu ko jox ci asaka yi juróom-ñett ñooñu ñoo war a lekk bu fekkente nag léegi ki ngay joxi ak ki ngay jéggi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bokk nga ci kenn ci ñooñu te kee gënu koo lott gën a lott ci biir amuloo it sikki sàkk ci ndax kii mën na lekk asaka wala déet waru la ko koy jéggale bu fekkee nag am nga sikki sàkk ci moom te kee sa xel dal ci amuloo keneen ko ko fi jox nga yónnee mën nga ko koy yónnee waaw kii mu ne moom mi ngi ab jullit la takkusaan def na ba tey waaw kii mu ne ab jullit la bopp mi ngi liggéey ci ay lu ñu tuddee ay guitare guitare ay maanaam ay ay usine waaw usines yooyu dañuy jaay ay ndawal mm-hmm. ndawalu xar bëy ay nag ak yeneen mm-hmm. li ko ci ñor mooy li ñu tuddee mu xinsiir mooy mayaale mm-hmm. mu ne ndax laal googu muy laal yàpp woowu di ko tuxale fii di ko jële fii di ko yóbbu fële loolu lay laaj ndax dagan na wala déet xinsiir lu xaram la xaram ay dagari la lépp loo xam ne xaram na walla sharia sib na ko ay dëgëra la am yi ci gën a bari bu ñu amul lor ju ñuy lor nit araam na nga rey leen te amuloo ci soxla xinziir rek ci lañ ko daganale ndax li muy yàppam di loo xam ne dafa amul dara ci barke amul dara ci roxaaniya amul dara ci nuuraaniya ak jullit war koo sori nga xam nit ki ko lekk dana lëndëmal xolam dana ko tàyyelloo jaamu yàlla dana ko bëgg lu koy lor dana ko tàyyelloo lu am njëriñ ci moom waaye buñ seetee xinziir ak sàngara sàngara moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam yowma fatxi màkkata dafa rëbb sàngara rëbbaale fukk xinziir nag gisuñu fu mu rëbbee ñi ko jege ak ñi ànd ak ki koy jëfandikoo ak ki koy jënd xam nañ ne rek araam na jënd gi araam na njëgam araam na maanaam lu may laa du ma ko lekk dem jaay ko lekk njëgg araam na muy mën a lekk am maa nga jege xinziir wala nga laal ko lu ñu soppul la bu fekkee nag daruri la maanaam li tubaab di wax nit ki mën na ko ndax sàngara mi nga xam ne moom la ñu rëbboon jël naa araam gi waaye dañ ko rëbb rëbbaale ci fukk ki koy jënd ki koy jëndal ki koy jaay ki koy yenu ki koy nal ba mu mat fukk ak ki fay jege ak ki koy naan ba mu mat fukk ñooñu ñëpp yonante bi sallallahu alayhi wasallam rëbb na leen keroog yow ma fat fi màkkata xinziir bokkuñu ne rëbb nañ yo waaye ci jullit bu fekkee ne mën na koo bañ a moo gën bu ko mënul a bañ laal par contrainte gis nañ ne sàngara moomu sax ci boppam am na fu chéré a daganale jullit bi naan ko du pour ngir faju de waaye ci loo xam ne dee def cee gaaw mooy mu lekk ba fot amul ndox mu mu tàggantee xotam googu sàngara rek nekk fi yoon may na ko mu góox wanaasu bu dañul mu góoxaat wanaasu ba li galandu ci butam dem médd lu xaram la waaye ci daruur yu bu nit ki dee ma nga xam ne bu ko lekkul dee dana ko lekk kon xinziir bu ñu àggoon foofu daañu ko lekk léegi nag nit ki àggul ci contrainte maanaam ci daruur yu àggul ci foo xam ne xinziir dana dagan ci moom walla sàngara day liggéey liggéey bi tam nag xëy na bu ko bàyyee dana ko jafewaat xamul dana ko amam déet duñ ko forcé mu lekk lax laxmu xinziir bi fekkee ne daf koy toxal di ko jëlee fii yóbbu fee moo gën a woyof ah lu ñu ciblé waaye bu fekkee ne nit ki dafa amul pexe man na ko waaye nag bu ko mënee bu amee benn possibilité bañ koo laal moo gën bu ko mënul nekk waaye bu mu lekk bu mu lekk bu mu lekk njëg njëgu xinsi bi bu mu ko lekk randal gi moo gën a woyof ما هي الصفات التي تتحقق بها المريد لكي يكون مريدا صادقا وما دورها في أهل الشيخ معنى أولاده waaw sëñ tuba bi nag ngeen sifaatu sadiqil muridi ixtisaar xam ngeen ne xam ngeen ko li mooy dëggu ci sopp sëriñ bi sopp sëriñ bi nga xam ne mooy wasilaam ilallaahi sopp xam ngeen ne wax naan ba tàyyi mooy buum gi yeew taalibi bi ci sëriñ bi te ci sopp gi nga xam ne moom la taalibi bi sopp sëriñ bi ci la sëriñ bi mën a dëgg ba faj aajoom waaye sopp gi nga xam ne sëriñ bee ko ko sopp moom mënu koo jëriñ dara dañuy sëriñ Tuubaa daana wax ne seen sopp gi ngeen may sopp moo leen di jëriñ waaye sama sopp gi ma leen sopp mënu leen a dara ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom daf ko ne innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa'u wa huwa alam bi bu sopp gi dëggoo gëm ak wóolu ak ñàkk sikki sàkka ak ñàkk tej ji ndigal gëm mooy bu mu am jënn jëmm dina gën a doy ci moom bul sàkk jënn jëmm yoo xam ne moo la gën a doy sëriñ bi waqul laa shakka mawti gaa bayna yaday xaasilihi tuntafia na nga nekk ci sa kanamu sëriñ li nga xam ne néew bu ñu tëral ci kanamu ki koy sang xam ne lu mu def moo ko def loo lu mu bàyyi moo ko bàyyi loo daanaa misaal euh, sëñ boobu ci gànnaar te am benn taalibi bu fa dem bi tër bi yëwu léeg-léeg ñuy ñëw ci kanamam ba aajoom faju mu àgg dem moom mu des ci yàgg ci loolu bu benn bis waa laaj sëriñ bi ne ko man de yàgg naa fi ñu bari dañuy ñëw fekk ma fi seen aajo faju ñu dem man nag ba léegi dara mu ne ko waa baax na benn bis genn waaye dal di ñëw jébbalu mu dal waa ji nga xam ne moo fi yàggoon ne ko demal duggal ma ca teen bee kat am na lu ci nekk nga indil ma ko waaye bu la kenn yoor ak baat na nga dem ak sa loxoy rek bu dawee dawa daw ba jub teen bi rek xool mu guddi mu taxaw moo wokki fii soog a ñëw ne ko demal duggal ma ca teen ba làmbal ma ca jaaro bu ca doon waaye lu yàgg-yàgg buñ duggee buum buñ duggee goj buñ duggee waa ji daw fee rek agsi rek dal di daanu ci teen bi mu dara jotu ko bi ko génnee mu ne lii moo tax ñi nga xam ne dañ fiy ñëw fekk la seen aajo faju ñu dem te sa aajo tëye faju dañ laa gën gëm kon wóolu bi nga wóolu xam ne wóoru nga ne bi bu juumoon sax njuum teem googu moo gën yow sa euh, ñàkk a juum nga nga def lii muy lu jub sëñ bi def lii muy loo xam ne yow sa bopp da koo teg lu dëng la lay dikkal ci lor ci sa dëgg gi moo gën a bari la lay dikkal ci maanaam dara du la dikkal ci lor ci njuumteel sëriñ ba ndax mën na mel na dafa juum fekk juumul euh, sëriñ su njëkk si melo yu bari daanañ ko nattoo taalibe yi nga xam ne ñoo si ñoom euh, détails yi dafay ndax laaj yi day bari moo tax waaye sifa bobu dal moy na wóolu ne na wóolu ne bu ko sëñ bi newon duggal ci safara way bu dugg na sop sop go xamne mom la gëna sop ci lépp na fekk na itam mom da fay laaj ma aqiqa ma hiya al aqiqa mujaddid wal muhafiz وهل شيخ مه... شيخ أحمد بامبا من ضمنهم وما الفرق بينهم والأنبياء mujaddid moom def nañ ci ñaari conférence yoo xam ne bokku ci ak moromam al mujaddid dafa am ay charte yonent nag moom limu mu wuteeg waxuma mujaddid rek waaye limu mu wuteeg ku dul yonent ak foo mën a ci yàlla li ñu wute mooy yonent day ñëw sotti yonent kenn du ko kenn yar kenn du ko won dara doy lu na wëlis mbindeef nit ñépp malaaka lay gis malaaka lay waxal ak boromam bu juddu woon juddoo ci réew yi yi gën a mag kenn jàngal kenn xamalu ko dara it dana xam yàlla xam gu mat sëkk sëkk dana jub jub gu mat sëkk te li nga xam ne moom lay war a wax jaam ñi du ci juum mukk mukk mukk leneen meneen mbindeef mu dul yonent aajo woo nga ku jàngal aajo woo nga tërbiya maanaam jihaadu nafsi ba ba ngay àgg aajo woo nga jéggi ay maqaama ba ba ngay àgg <coughs> wala yu nag <coughs> Muhyiddin Arabi yi wax na ko am na si ñoo xam ne daañu dem ba àgg ci maqaamam yonent waaye duñ doon yonent ndax kenn yónniwu leen dañoo ñëw gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci maqaam ndax xam ngeen ne jëf ak maqaama duñu benn ndax maqaama mu ngi aju ci coobareel suñ borom ak kabeem bu ko neexee mu yëkkati la teg ci ci maqaamam saxaaba yi waaye jëf moom kenn mënu coo jot saxaaba yi ndax dañoo jëf ci jamono boo xam ne keneen fekkiwu ko ñoom rek woon te jamono booba wéy na mooy taxawal lislaam jaay seen deret jaay seen lépp ànd ak yonente bi salaa nga xam ne gis ko rek maqaama la te gis ko rek te gëm ko ñu ànd ak moom jaay seen bakkan di xeex wacc seen adduna wacc seen lépp wacc sax seen àllaaxira wut rek ngërëmal yàlla ba seetatuñu dana loolu keneen mënu koo am dañoo wax ne Cheikh Ahmadou Bamba bi wax ilay yaqaadalaahu maalam yakuni wala yakunu abadan di mumkin ni dafa jaamu suñu borom ba suñu borom wan ko maqaama yi nga xam ne mooy maqaama yi rijaalulaahi yi mu gis ne gëm ci gën a xemmem mooy maqaama ahlu badrin ñi xare woon badar bi mu ko ñaanee suñu borom waxtaane nañ ko ba tàyyi mu ne ko julli mënatu la koo may woor mënatu la koo may wesaare xam-xam mënatu la koo may sarxe mënatu koo may aji mënatu la koo may tërbiyew mënatu la koo may mooy natt boobu mu signé woon dem ci géej gi jaay naa jaayante naa moom kë jaayante moom laj ak yi nga xam ne moom moo ko ci wesal boppam bàyyi ko muy yoo xam ne kenn mënu koo bàyyi ngir am mën a bokk ca ahlu badrin yonent kon yooyu yëpp moom aajowul aajowul benn fàggu moom liñ ko yónni si jaam ñi na ko matal rek bu fekkoon ne ñaari fan la woote ñu rey ko it yonent la rek yonent yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam ñetti at la woote ñetti at la woote fanweeri at ak ñett la dund ci àdduna ñetti at la woote yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaar fukki at ak ñett woote na ko waaye ku nekk xam ne ne jàngul fenn kenn jàngalu ko dara kenn xamalu ko dara kenn yaru ko kenn tërbiyewu ko jaarul fenn ndax yonent moom waxtu wu juddoo rek xam suñu borom baraka wa taala loolu moom kon mooy wuuteeb yonent ak kudul yonent mujaddid yaa ngi ci biir tàmbaliwaatal wax dafa doon wax ne al mujaddid waaw wal muhaafis waaw muhaafis mhm. ndax Cheikh Ahmadou Bamba mhm. biir ñooñu la bokk mhm. ak lan mooy wuuteeg Cheikh Ahmadou Bamba ak ñooñu le mujaddid yi benn bokku ci ak sa morom ak lan mooy wuuteeg yonent yi ak wàllu yi waaw loolu moo wax naa ko mooy li mu wax léegi ne yonent wàllu yi dana aajowoo tërbiya dana aajowoo jàng dana aajowoo yëpp ngir mu àgg ci yàlla mën na nekk maj suub nag da fekk ne détails yi dafay bari buñ ci duggee du jeex mukk wàllu yi benn mu nekk ndax dañ ne ñeent la ñu asaalikul mujarrad asaalikul majzub al majzubul mujarrad almajsubu salik mooy bi ci gën a féete kaw yëpp day détail yoo xam ne day bari euh, jamono bi du ko mayee waaye ak wàllu yu mën a doon wuuteem ak yonent ni ma waxe woon rekk la waxe léegi moom noonu la demee léegi mu des euh, mujaddid yi mujaddid ay charte la am jëmm joo xam ne matal na charte yëpp ulama yi ñooy daje ba nangu ko bu ko ko yàlla defee it doon na ko ndax nag nit ñi ñoom ñu xam ko wala ñu ñàkk koo xam lu ci ne lu mën a am la ñeent juróom ñooñu nga xam ne kenn ku ci nekk ulamaaw yi saxal nañ ne mujaddid am na ci ñaar ñoo xam ne wala ñett ñoo xam ne ulamaaw yi dajewuñ ci ñii dañ ne kii la ñii ne kii la ñii ne kii la kon euh, limaamu Shafii gannaaw euh, Omar ibn Abdul Aziz alimaam al Xasaali ñett ñooñu lañ ci daje ñëpp daje ci ne mujaddid lañu mujaddid lan mooy ay shartam waaw ah ma àggale waaw. Ah. defe naa question bi noo ngi ci jeexagul defe naa. Ah, waaw man daal defe naa kooku moom am na ay kaset bu ci ne am na ay kaset mu jënd ak mu xaafis moom daanaka euh, dañuy teel suñu temps rek waaye ndax ñaari euh, conférence yoo xam ne bu ci nekk mawdu bi mooy mu jënd. waxtaan naa ci loolu lépp waxtaane ci kenn charte yi waxtaane ci euh, ñiñ ci daje ak kenn ku ci nekk na mu mel ak la mu wuteeg moroomam daanaka yi ci laaj bi yëpp daal moom ñëw kooku moom am na ay kaset bu ci ne am na ay kaset mu jël di ak mu xaafis moom daanaka euh, dañuy teel suñu temps rek waaye ndax ñaari euh, conférence yi xam bu ci nekk mawdu bi mooy mu jël di waxtaan naa ci loolu lépp waxtaane ci kenn charte yi waxtaane ci euh, ñiñ ci daje ak kenn ku ci nekk na mu mel ak la mu wuuteeg moroomam dara yi ci laaj yëpp daal moom ñëw na ci bu kii mi ngi fi laaj laaj bu am na solo mu ne dafay laaj lan mooy li ñu tudde can ak can waaw ah. ak ndax luñ limité la wala buñ ko limité ñaata daya lañ war a maanaam téeméer ñaar téeméer ñetti téeméer fu muy toll daal. waaw. can ponk sëy benn la ci. mu ngi ponk bi bu njëkk bi mooy kilifa na am kilifa goo xam ne moo yilif ku jigéen ki di ko maye. gannaaw kilifa ay seede na ko ñeent xam ngeen booba état civil amul. te ñaari nit bu kent ne dañoo nangu ne ñaari way dencante lañu doon na day sox day am seen diggante ko ci dee te bu fekkee ne nit ñi xamuñu ko woon kenn séedewu ko woon duñ ko mën a ñàkk a donnal duñ ko mën a donnal day daal di doon am lënt benn ñu xañ ko ko fekk sëy bi saxoon na ñu xañ ko dono wala ñu euh, donnal ko mu lekk alali jàmbur fekk sëy bi saxul woon loolu ni ñuy defee état civil booba loolu moo waraloon seede yi ñeenti seede loolu moo tax farata ponk la ci ponki sëy can kilifa seede ak pas-pas yépp bu ci nekk ci ponk yi la bokk can nag am na ay charte nañ ko cane lu dagana moom boo ko canee gurdub sàngara du baax na laab bu ko cane lu sobe nay lu ñu mën a jaay can itam na mat rubu dinaar ci jamono yonent bi xam ngeen ne xaalis moom day soppi gis ngeen barki démboo njaay CFA wàññiku na fi darajaam ñaari yoon kon ñu takk bu loolu amul woon dévaluation bu amul woon it jamono ni muy wëlbatikoo ak ni muy wëndeeloo léeg-léeg xaalis toll fii benn dërëm tollu fii lu yàgg mu toll fii lu yàgg fii bañ nee nag rubu dinaar wala fii convertir ko ci ñeent dërëm ak tranche ñeent ak tranche booba buñ ko seetee la ñeen rek tranche daan jar ca jamono booba buñ ko seetee léegi day soree lool lool lool lool ulama yi nag am nañu xalaat yu wuute yu bare bare bare ndax dañu ne asaka dañ diqani yabun jizayun muxtasar Cheikh Khalil ci ndax jamono yooyu dafa amoon ay dërëm dërëmi yasidiya ak dërëmi muhammadiya dinaar itam am ay xeeti dinaar yu wuute jamono yu ñu koy tëral bu fekkee ne xaalis la dërëm bi diqani dërëm bi nga xam ne boo reyee nit ci la ñuy wàññee diye bi ak moo ñeent ak traañ soom la ñuy takk ñu koy wecc ko bu demee nag léegi ba àgg ci ñeent dërëm ak tranche ci takk can can moom li gën a néew fixé nañ ko waaye li gën a bari fixé wuñ ko bu la neexee nga joxe fukki milliards bu la ko jaralee te nga am ko waaye li gën a néew moom lañu ñu bu mu yées mukk rubu ordinaire ndax liñ ci jublu na nekk loo xam ne dana jëriñ ki ki ñuy maye te moom moo ko war a lekk ci loo loxoom lañ ko war a teg kon lu bon bon na ko mat mbubb wala sér wala loo xam ne dana ko mën a jëriñoo fii ci jamono yu yàggul am na ci euh, ñi nga xam ne ñi ngi def ak farlu di def ijtihaad ñu takk ko ci juróom benn téeméer man ci jamono yooyu ko ñooñu takkee ci juróom benn téeméer dama ne li daal sama xel daal ñaari junni ñaari junni ñu dem jamono bi xaalis bi di fi gën a ñàkk solo ci Sénégal ba mu mujj dévaluation ñëw ci man li gën a xam daal dana dal sama xel xam ne daal man bu ma ko doon def li may nangoo joxe te du ma ko nangoo wàññi ci sama xalaatu bopp fukki junni moom du ko yées fukki junni moom du ko yées yi ci des nag mooy aada yi li ñuy wax affaire waru garak lekku ndeyeg may gu njëkk ak lekku bàyyi may yooyu yëpp moom ñoo ko moom seen affaire yi bopp la bu la neexee def ko bu la neexee bañ ko waaye li nga xam ne mooy xàq yàlla nga xam ne benn la ci ponki sëy nga xam ne bu amul sëy gi mat mooy can googu can googu nag mën nay bor masalan bu dee ñaari téeméer nga dawal ci fukki dërëm li ci des nga di ko ko jox waaye nag sib nañu nga bañ a dawal dara lépp di bor wa yukrahu nisaau bil mu nikaaxu bil mu ajjali illa isa ma kaana ma mu ajjali faw nga am loo ci dugal ne nag ñi ngi koy topp nangam loolu bor lay doon boo ko fay boo ko fay waaye faw am lu dugg lu dul noonu sii bi dana wéy dana dagan waaye ànd ak cibeel sib nañ ko kon defe naa laaj boobu leer na ci wàllu can gi kon mbokki daayiratu Touba Vicenza ñu ne ngeen dem ci kaar ba ndax par ngeen lijjantiku Touba Vicenza léegi kii dafay laaj mu ne ndawal gi ñu lekk ñun fii ci réew mi ànd ak ahlu kitaab ñoo koy reen bi mu ne ndax ndawal googu dagan nañu lekk ko wala déet waxoon nañ ko démb de newoon naa yéefar yi nga xam ne am jotoon nañu ay téere nit ki nasaraan yi ak yahood yi na leen na seen ñoom diine di rendee bu ñu ko rendee jullit mën na ko lekk bu fekkee nag ñoom nit ñi ñoo rey seen reyinu bopp woo xam ne wu ñaaw la bu moom lay taxa lekk euh, leneen moo lu daganul moo koy taxa lekk ndax dafay dal di araam xam ngeen ne xaleel ak jigéen sax seenub da seenub rendi dagan na bu leen xamalee nañ koy defee si imam Malik sib na ko nag waxoon nañ ko démb waxoon nañ ko waaw. kii dafay waaw julli tak sax des na des na. xaw naa sonn demoon. kii dafay laaj. man huwa sul qarnayni. ba wa man hum yaajuuj wa maajuuj. sul qarnayni. ak ak ñan ñooy yaajuuj ak wa maajuuj. sul qarnayni. zul qarnayni am na ah, zul qarnayni du woon yonent eh, Seydil Hadj Malick waaw kon eh, mbokk yi ngeen dimbale ñu ngir yàlla déglu tuuti rek ñu àggale li ñu fi indi woon ñun ñëpp waaw mu daal di jeex ku ne mën a dellu ci yitte ngeen déglu ñu tuuti rek ndax am na ci laaj yooyu am na solo te ñu jariñ ñun ñëpp ñu koy déglu waaw ndax dem ak dikk bi day metti kii dafay laaj mu ne ndax sul xarnay ni ab yonent la woon ak kan mooy sul xarnay ni ak kan mooy yaa jooja ak wamaa jooja ñooñ ñooy ñan ذو القرنين عند أسهل المسالك برم ما عندنا محصة سيد الحاج مالك جديد دم جاولة أسهل برم أسهل المسالك مونا لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجح الأقوال لكن أولياء اسكندر أم نيو خامن موم لا نيو تك ذو القرنين mooy Alexandre ci tubaab moo sanc dëkk boobu ci Égypte ñuy wax Alexandrie Alexandre moomu Macédoine la dëkkoon mooy al-Maqduni notoon na réew yu bari maanaam li tubaab di wax sage maanaam xakim xakim la woon ñenn ci ulama yi teg nañ ko ne mooy Zulqarnayni waaye ci ay tegtal rek lañ ci am leeru leen ndax Zul Qarnayni keneen la woon wala kooku la ndax Zul Qarnayni lu jiitu lu yàgg kooku la woon wala ku ñëwagul la yooyu yëpp bu ci nekk am na ci ñu ko wax ci ulama yi ndax Zul Qarnayni sax jëmm la joo xam ne mën nañ ne mu ngi nii muy jëmm la wala déet wala dafa mel ne li ñuy wax Masih Dajjal wala yeneen. déedéet a wax waaw ma àggale rek tuuti ñu laaj ذو القرنين لا اله الا waaw waaw dul qarnayni moom li gën a lënd ci wax yi mooy di woon yonent wan wi la woon maanaam xakim la woon sage yaa gi jëw maajuuja ma dañu wax ne les prophètes parlent en parabole wala hyperbole yonent yi seen wax dañ koy taawil léeg-léeg duñ ko dégg yonent bi salaa sama nee nan sax نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر اقولهم نم بارم يانتي سن بارم داف نو ديغال نو واتي با تولو خيلي نيت ني سوغا واخا نيوم ندير ني مانا ديغال لي ني واخ يا جوجو ما جوجو دما تي واخ دانكا لو مات سي فوتي كونفرنس سي اي لاج dañ lu ñuy tawil le manam bu sété charte yi ñi lekkon yépp danaka dafa ñëw ci jamono yu ci bari nag nit ñi dañ koy séenoo noo xam ne demewul noonu ndax dañ koy jël à la lettre maanaam harfiyan fekk na mooy tax duñ ko gis waaye li ñu waxoon ci mujj jamono yëpp ak jamono ñu wax ne ci la yaajooj ak maajooja di génn yëpp yenn ci bari nga ne si caa àgg waaye daanaka rek soreetul wala ñu nga ca kon ni ko sëriñ bi waxee rek def na ci ay waxtaan na ci lu bari ci yaajooja ak maajooja ak léegi benn laaj waaw benn laaj ci des kon hmm. yu bari am na fi solo waaye waxtu wi moo ko mayewut kii dafay laaj ci masaalikul jinaan Cheikh Ahmadou Bamba dafa wax ne fa laysa yujibu sawaadul jismi Cheikh Ahmadou Bamba dafa wax ne fa laysa yujibu sawaadul wax ne fa laysa yujibu sawaadul jismi safaatul fata wa loolu lañ bëgg sëriñ bi leeralal ñu ko mu ne lu ci Cheikh Ahmadou Bamba jublu موجي مصالح الجدال سي احمد بن رضي الله عنه فليس يوجب سواد الجسم سفاهة الفتى وسوء الفهم نيونو يارم دو تخ نيت كي غات خل ولا مو ام اك توتي تي ندوخي ولا مو نياكو ديغ بروم خام خام ييب خام نانيو ني نيت كو نيول اك كو ak ku jaune ñooyam réew moo ci dem suñ yeboo ñuul suñ yeboo weex suñ yeboo jaune da nga fa fekk ñu jub ak ñu dëng fekk fa ñu am xel ak ñu gàtt xel fekk fa ñu yewu ak ñu yewoo di ko fekk fa ay boroomi xam-xam yoo xam ne kenn rawu leen fekk fa it nit ñu réer ba fa réer yam ñuul moom du lenn lu dul jeexitu tabia bi li ñuy wax les rayons ultraviolets nun ñi dëkk ci réew yooyu jël xatul istiwa bu ñëwee suñu yaram day réagir di pigmenter pigmentation boobu mooy ñuulal yaram wi ci li ko borom xam-xam yi wax loolu jotewul ak nit ki boppam bi fees ak yuur ak structure ba ca war jotewuñu dara mën nañu nag ne réew dana tardé dana avancé retardé ak avancement bi mu ngi aju ci ay circonstances ak histoire taarix réew mi fi mu jaar xam ngeen ne buñ seetee ne wolof yi lu yàggul la ndax daanaka wolof boo ci seet mu am maam yi làkk kat sunu langue bi mën nañ ne yàggul gerte gu woon it amit civilisation bu sax fenn xam ngeen ne suuf si nit ñi ba ñuy tàmbalee ñëw ci àdduna jékkiwuñ jékku fees adduna pàq bu nekk ay nit ne fa déedéet ñii ne Afrique la ñu njëkkee ñii ne Inde léegi ci archéologie maanaam ñi nga xam ne dañuy gëstu di def ay iktisaafaat ñu ci gën a bari ci nit ñi ñuy sulli di fab seen yax di ko def ci rajo carbon 14 xam ñaata at la am ci suuf dem nañ ba gëmandi ndax gëmandi laay wax ndax science day dox rek léeg-léeg dana toll fi ba mu yàgg mu weesu ko ñu gëmoon nii ba mu yàgg leneen dikk dindi ko wala mu changé ci tuuti wala mu yokk ci wala mu wàññi si ñu ne Afrique la xam ngeen nit ñi fu ñu gën a baree ci la civilisation bi gën a jundoo gën fu ñu gën a néewee buñ dëkkee ci gott yi maanaam àll yu lëndëm yi dëkk ak ndogment yi ñuy daw di nëbbutu garab yi lëndëm duñ jot daje ba di sottantey xel ba di science am dara jawwu ji dana may dana am ay jeexit yu muy def ci nit ñi ni ma waxe woon sànq ni muy jeexitale ci couleuru nit ki deram noonu lay jeexitale ci jikkoy nit ki buñ seetee muqaddamatul muqaddam lépp xole gomeen ak wala nu lire benn philosophe dix-huitième siècle bu ñuy wax Montesquieu ñu gis température béréb ak climat ni muy jeexitale ci jikkoy nit ki ak ci yuuram ak ci yu bari béréb yu tàng yi nga xam ne ulama yi dañu wax ne li ci gën a bari ñi fiy dëkk xalaat ëllëg du leen faral di yombe noonu jeng jëm ci po tabiiyan daf leen di gën a day gën a bari lu mu not ci ñoom waaye loolu lépp day indi ay wuute tuuti ci ay jikko ak yi defiin ak yi faggu ak ñàkk faggu waaye mën a wax ne réew sàngam ñoo gën a am xel réew sàngam mënula am buñ seet dañ seet ne doom aadama yi ci kaw suuf yëpp mën nañoo ànd am na réew yu jiitu seen morom ci kaw histoire yàgg euh, mbooloo nekk mbooloo di découvrir maanaam di def iktishaaf ay xaqaa'iq man ay réalité di ko mettre en application di inventer waaye loolu ay circonstances moo koy maye ñi dëkk ci réew yoo xam ne inondation yi day bari wala naaj bi di tàngaay di metti trop wala ay ndogment di leen kii wala ay daay di leen dàq du ñu seen civilisation lu jafee màggal la te lu eh, yéex eh, sosu la ay détails la yoo xam ne moom it buñ ci duggee day gudd ba na bare bare bare bari wante nit ki yaramam ñuul na tekkiwul ne benn nit weex ci weex bi mu weex kii ñuul mën na ko gën a jege yàlla wala mu gën koo am xam-xam wala mu gën koo ñor wala mu gën koo ñaw wala mu gën koo sawar wala mu gën koo dara fekk na nag aada yi diine yi façon dundin yi climat yi ak bërëbu suuf si nature suuf si ñu dëkk mën na leen a wóotale ci lu bari waaye doomu aadama yépp buñ seetee structure seen yuur duñ ci mën a conclure mukk ne nit ku ñuul ñuulaayu yaram doomu aadama euh, seen ak yeewut sax day dox ndax gis nga buñ seetee euh, Cheikh Sidiye radiyallahu ta'ala muy tagge sëñ sëñ Tuubaa fi wax neen li ali habibillahi fadlun wa sulubun wa izzun tariqun kulla kulla hiin wa mutlab fama darra mubyad khalaiq minhum wa adabuhum lawnun alayhin aswadu فما ضر مبيض الخلائق منهم وآدابهم لون عليهن أسود مديكو تاك بني ملو نيول لي سين كاو يارام لورول سين جيكو يو رافet yi ak seen teggin yu mat yi bu doon jamono bi duñu waxee noonu ndax léegi weesu nañ foofu xam nañ nit ku ñuul du ci àgg nit ku ñuul nit ku weex ku gën a dara lu dul ci taarix rek ci taarix rek Afrique ñi ci dëkk ni nature bi mel ak ni mu demee rek ak nit ñi niñ ci yéex a baree ni ñu yéex a dajaloo loolu dong moo indi wóotale yu bari wóote yu bari ak climat bi liir euh, leen les du waa ak yeneen yi nga xam ne Montesquieu bi nag wala ngeen liir muqaddamatum nu xaldun les problèmes gomi rek yëpp da ngeen gis ak yeneen téere yeneen ak yeneen da gis ne doomu aadama yi mooy doomu aadama ñoom waaw ban ci waaw wax ma dañ ne woon sax ci benn laaj boobu lañuy ñu waaye dañoo amaat beneen boo xam ne dana dafa mel ne dana yitteel ñu bari ci ñun lépp a ñu yitteel waaye ñuy segg toujours rek benn par benn bii moom dafa yitteel lool ndax ki ko bind dafay laaj diggante jëkkër ak jabar lay laaj seen diggante ndax seen kenn ci waj ñaari wajur ñooñu am na droit tàggale seeni way dencante yooyu te ñoom ñaar d'accorduñ ci lan la ci lislaam wax wala suñ ko defee ndax lislaam teg na ñooñu mbugal moom leen war a mbugal wala yeneen mbir daal yu ci xew waaw euh, diggante jëkkër ak jabar euh, sharia daf koo tëral def ay charte ak i sabab bu fekkoon ne léegi xaadi daf fi am am na diggante yoo xam ne xaadi ci boppam moo koy tas bu ñu ko yëgee comme xaali yi àtte amul ndey ak bàyyi mën na remplacer xaalis ci ay bërëb kon nga xam ne am na kaa yoo xam ne ndey ji wala bàyyi ji sañuñu yoon mayu leen ñu tas ko am na kaa yoo xam ne war nañ koo mën a tas léegi su fekkente ndey moom mënul tas ndax ki takkay ki takkay tas ci wàllam la ñuy tase xaw ji sax buy tas benn daf koy tas ci passé wala mu tas ko ci lu dul passé seet leen fiq téere fiq yi ah, ki nga xam ne léegi sëy bi euh, ku góor ki <laughs> dafa am foo xam daal fa la mën mën am ci biir am na foo xam ne bu fa tolloo ku jigéen ki am na droit ci moom ne day tas bu demee wax bu ko waxee àtteekat bi rek daf koy tas mooy am lu dagg ci moom ba ca genn wàll ga am na si daal yu bari yoo xam ne neexul wax noonu waaye léegi bu fekkee ne cas boo xam ne léegi waa du joxe dund te dafa dëng day dëkk ci sàngara kii du ko gis buñ demee dañ koy tas bu ko xaasi ji dee tas bu xaasi amul waaye jur góor ki moo koy war a tas bu fekkee ne dafa réer kenn xamatul fu mu nekk du yónnee du bind du téléphoné kenn xamul ci moom dara moom lañ tuddee al mafqud mafqud itam mafqut ak ki nga xam ne dañ koo jiiñ ne dañ koo jiiñ ne daal <laughs> mënul doxal xabaar bi. <laughs> dana ci am ci am kaa nga xam ne moom xàqu ku jigéen ki def ci aju da nga sañ na ne na tax na dañ wala yaayam wala baayam ki réer moom dañ koy saddal moom it dikk moom daañu ko yéex a doon waaye nag soxnaam daañu ko maye mu sëy ab diir la am ki nga xam ne itam dafa mënul daal mooy ki may wax moom it faw ñu toppatoo ko ba mu sax bu saxee nag foofu ku jigéen kii dañ koy tànnloo bu fekkee ne jubbu ne ko moom mu bëgg a toog kenn du ko ko tere ndeyam ak baayam amuñu droit ci tas ko bu fekkee nag tasa ku gënal ñu tas ko léegi daal euh, dafa bari kaa lool am na kaa yoo xam ne moom bu dee lor jigéen jigéen ku jigéen ki lor ju bir te ku góor ki mënuñu koo euh, jubbanti jaarale ko ci yoon gannaaw yoon daf koy tas bu ñu demee ci attekat ba xaadi ba bu xaadi amul léegi jullit ñi ñooy seen euh, xugaas bopp dañ koy tas kon waajur wi am na droit wu tas ko ci kaw dañuy woo ay seede ñu saxal li ñu wax ba mu wér ne lii lu am la ñu xam ne lii day lor ndaw si te mënu koo wéyee ñun jëndi sëy bi waaye nag du tëb rek ne diw neexuma tas naa sëy bi mënul nekk muy ko góor ki muy ko jigéen kenn sañu ko si ndax benn ku góor ki tey mag mën na xam loo xam ne euh, xale bii sëy xamu ko tey njëriñam xam na ne lii mooy njëriñam mu leer ko te ku jigéen ki xamu ko loolu moo tax dana am kaa léegi daal mën na am waaye ay kaa yi bare bare bari la dañ koy seet dañuy seet ba xam ban kaa la kaa bu ci nekk dañuy seet la ca war bu ca tas waree ñu tas ko ak ki koy tas itam ak na mu koy tase waaw jeex na ah. waaw kon wax question boobu. dernière ba tey ci boobu la. waxtu ànd waaye. ñu ñaanante même ci boobu question la sëñ bi moom mu ne. ndeyam ndeyu ndaw sa ak baayu ndaw sa ak baayam moom ak ba ak yaayam ñoo def loolu. waaye moom bëgg na jabaram. jabaram it bëgg na ko te d'accordul ca. la ñooñee def. Mhm. loolu lañ laaj seen atte ñoom ci lislaam. lu ñoom tooñ nañ leen dañ a tooñ. fekkee ne xaadi si amoon dañuy maanaam li ñuy wax porter plainte dañuy dem clamé bu ko defee xaadi jee koy seet nag ndax faw ñu seet illa yi tax ndey kii ak baayam ak ndey kii ak baayam ndaxte ñeent ñu ñu bokkul lépp mën naa am ñu am ñu am seen raison boo xam ne moo tax ñu bëgg mu tas bu bu demee xaadi ji mooy seen raison bi lan la ndax daf leen di woo ñu taaj leen ñu toog kenn ku ci nekk wax ñu dégg nag ndax lii kon yoon tas na ko wala yoon tasu ko Eh, kon mbokk yi defe naa loolu leer na kon naññi ci kooku le wàllu leer na ñaanalante ban xanaa wala kii beneen la moom it boo xam ne yitteel na fi ñu bari ñaar la yu bokk benn laaj ñu jël benn ba waaw mooy ki nga xam ne dafay denc xaalisam ci banque yi ñuy denc seen xaalis ci banque yi ñu ne ndax intérêt ji arabe na wala arabe waaye wax nañ ko junni yoon kooku moom daanaka soxlawul intérêt moom waaw intérêt moom jullit du ko kii ñu jël benn wala neexee nga bàyyee leen ko wala nga seet nga def kon benn bu mujj bi waaw mooy kii dafay laaj euh, ñu waxal ñu tuuti ci luqmaan moom mooy kan kan mooy luqmaan ndax ab yonent la woon wala hakim la woon wala lan la woon luqmaan du woon yonent hakim la woon hakim mooy li tubaab di wax sage un nit la koo xam ne kii boppam day fees dell muy nitu xalaat am xalaat yu jub te moom ci boppam mu jub ku jub nit ñi di ko laaj xalaat muy jubbanti nit ñi itam di leen yar di leen yee luqmaan benn ku ñu moom la woon nit ku ñuul la woon du woon yonent waaye nit ku yàlla joxoon sases la moom la wax léegi ne borom asalul masalik li mu ko waxee ne luqmaanu waskandaru laysa anbiya fi arjaxil aqwaali lakin awliya am na ci olama yi ñoo xam ne ñu yonent la waaye wax ci gën a lëng nga xam ne moom la nit ñi olama wu moom la ñu sukkandikoo moo di wàllu la woon du woon yonent sage la woon boo xam ne amoon na wilaaya maanaam nitu yàlla la woon koo xam ne dafa amoon euh, xikma xam-xamu xikma sagesse lool waaye du woon yonent am na ñeneen ñu wax ne yonent la waaye ñi leen ëpp doole ñi ne du yonent ñoo leen ëpp doole ñoo leen ëpp doole kon bismillah ñu ñaan ñu ñaanalante bopp laaj yu doy waar yu baax yu am solo loola bu gàtt ñu tontu ci tontu lu gàtt ñu ñaanalante ndax waxtu takkusaan wi jot na ba noppi war a julli ji ah, bari na ci laaj yoo xam ne eh, fuñ ko tontu eh, koo ci xam itti woo nga itam band yi ñuy lu bare ngi ci ndax am ñu ci am ay ñetti témèr ñenti témèr lu kon bari na euh, am ku ñu wax sëñ daam sey ma nga nek Dakar marché euh, marché ngelaw am ci lu mat ñenti témèr ñu manki te da ngay taxaw mu enregistrer la jox la Touba yi am ci ñu ci am ay ñetti témèr ki ñaar témèr euh, te bari na lool lo xam li ci téré da nga xuus lool soo gis wala do ko gis te bo dégloo bandi da nga ko gis jang nak mom dañu wax rek ne jàng moom xeetu jàngin wu ne am na nit ki du ci génne fab sa téere ubbi ñu di la tëralal rek mooy jàng wala nga fab àlluwa teg ci sa penk ñu di la saa rek mooy jàng xeetu jàngin wu nekk am na te jàng dañ ne minal mahdi ila lahdi mi ngi tàmbalee fi nga juddoo ñu teg ci berceau bi ba bi ngay dugg ci bàmmeel ndax njàng du jeex mukk tey nit ki mu toll war nay jàng ndax jàng boo jëfee gul woon te jàng xam ngi rek am na tuyaaba yoo xam ne du jeex léegi nag gannaaw waxtu saan wi jege na ngeen xam rek ne nit ki ni ko waxoon ca tàmbali ba rek kii jéem a gën mooy gën ba faw kii jéem a raw moroomam moo koy raw ba faw nit ki lépp lu mu am gannaaw yàlla moo ko jëfal boppam ci sawar ak jéem a xam li baax mu jaral ko dara mu jaral ko sonn ndax dañu ne nit ki boo bëggee xam fi ko yàlla toll na nga seet fa mu toll yàlla fa boo bëggee xam fu mu toll yàlla na nga xam nanga nga seet fi ko yàlla toll fi ko yàlla jaral rek xam ne kon góor góorlu ko defee lu doo ko rëcc mukk faral na nuy wax ne boo toogoon sax ba mu yàgg nga ne astaghfirullah al azim wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar wala nga ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallim yomb na waaye te buñ la ko fayee ëllëg doo ko xeeb te dundug nit li tax mu barkeel mooy bañ a neenal jamono te it nga xam ne lépp loo am li koy maye mooy muñ coono muñ naqar wala muñ nooflaay am loo xam ne danga nga ko sas sa bopp lu mu néew néew bis bu ne nga def ko dana raxas xol dana setal xol ni ko sëñ bi waxee ci masaalikul jinaan daje yi ñuy daje warula neen waru la neen gi mooy nit ki lu bon bon rek am na lu mu fàttaliku wala lu mu jàpp bu ëllëgee mu jariñ ko ni ko waxee rek lu baax yomb na dangay doo tàmbalee ci teg sa bopp lu diis loo xam ne doo ko mën a wéyee ndax kon da ngay yokkat yonente bi sallallahu moo ko wax ad diinu yusrun ma sarahu ahad illa ghalabahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam diine mok leneen lu mën a doon rek ndank ndànk tuuti tuuti ngay def nga amuk way akuk takku di ko def da ngay gën di yokku di ko gën a yokk di ko gën a man di ko gën a xemmam ba ba nga xam ne daf lay neex neex koo xam ne ki tàmm dam ya wala bëloot wala mu tàmm cigarette wala mu tàmm seetaan làmb wala lu mu doon na ko intéressé ni la diine ji intéressé koy gën a foor ba daf lay da ngay mujj mu moom la dootoo ko moom ba nga xam ne nekk di julli dangay am bànneexub leer yi julli am bànneexub jaamu yàlla am bànneexub ngëm waxtu takkusaan wi jege na laaj bi xanaa nu tontu ko lu gàtt kon laaj benn waay moo ko fi laaj euh, mu ne ci wax ji nga waxoon démb ne ak kudut ab jullit du jar ñu di ko ñaanal kudut ab jullit ah. waaw moom li mu bind mm-hmm. du jar kon ñu ñaanal ko mm-hmm. mu a tam gis Cheikh Ahmadou Bamba di wax ne mm-hmm. irham jami al wara jami al wara boobu benn la ca beneen bi ci des mu ne mi ngi laaj lu tax Cheikh Ahmadou Bamba atteewut ci an nafsa bi nafsi wal ayna bi ayni mu ne lu tax bu njëkk bi irham jami al wara Cheikh Ahmadou Bamba ko wax radiyallahu taala xam nga dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ana rahmatun muhdaatun man duma lenn lu dul yëpp yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy xeetal bindeef yi mooy dem ca suñu borom ndax fekk na jullit ñi ak mbindeef yi dem ci yonente bu nekk ne ko waxal ñu suñu borom mu attanu kenn ñu war a dem ci suñu borom lu dul moom mooy dem fa di ko sàbbaal si jóot xeeti sàbba yoo xam ne mbindeef mësu koo xam moom kere la ko suñ borom xamal ba suñ borom ne ko yëkkatil sa bopp sigil loo ñaan ñu may la ko mu ñaan ko mu xet li mbindeef yi atte leen ba ñu dem kooku kon yërmande mépp mbindeef la ñu def yéefar jullit waxoon naa ne yéefar julit sañu koo ñaanal waaye waxoon naa xeetu ñaanal ba mu ko sañu la ñaanal ak ba mu ko sañu ñaanal suñ borom wax ci alquran ne وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين lahu adwun lillahi tabarra'a minhu Ibrahima jéggalul gi mu leen jéggalul baayam dig bu mu ko digoon lekko le ne la dana ne ko danaa la ko defal waaye ba mu ko leeree ne kii noonu suñu borom la dafa dal dañ ci moom dañ talu ci moom moo di yéefar sañu loo koo ñaanal njëggal yërmande yàlla nag dafa yaat ndax yërmande yàlla dafa mën a am ci àdduna mën a am ci alaxira yërmande yàlla ci àdduna mën nañ koo ñaanal yéefar mën nañ koo ñaanal ku mu doon ndax képp rahma yërmande rahma rahma jooju tekk yërmande bii dañ koo xare ci rahman bii ñu xare ko ci rahim bi ñu xare ci rahman moom jullit ak yéefar ak baahimaak ndogment ak jaan ak gayndeeg lépp ci yem ndax amul mbindeef muy dund ci kaw suuf te yàlla yërëmul ak bala yàlla yërëmul doo nooyi mu àgg takk bindeef yi mooy dem ci suñu borom ndax fekk na jullit ñi ak mbindeef yi dem ci yonent bu nekk ne ko waxal ñu suñu borom mu attanu kenn ñu ngi la dem ci suñu borom lu dul moom mooy dem fa suñu borom di ko sàbbaal su jóot xeeti sàbba yoo xam ne mbindeef mësu koo xam moom it la ko ko suñu borom xamal ba suñu borom ne ko yëkkatil sa bopp sigil loo ñaan ñu may la ko mu ñaan ko mu xet li mbindeef yi atte leen dañuy dem kooku kon yërmande lépp mbindeef la ñu di yéefar jullit waxoon naa ne yéefar julit sañu koo ñaanal waaye waxoon naa xeetu ñaanal ba mu ko sañu la ñaanal ak ba mu ko sañ a ñaanal suñu borom dafa wax ci alquran ne wa ma kaana istigfaaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa adaha iyaahu falamma tabayyana lahu adwun lillahi tabarra minhu Ibrahima a gi mu doon jéggalul baayam dig bu ko digoon lekkale ne la ne ko danaa la defal waaye ba ko leeree ne kii kat noonu suñu borom la dafa dal di dañ ci moom dañ talu ci moom moo di yéefar sañu loo koo ñaanal njëggal yërmande yàlla nag dafa yaat ndax yërmande yàlla dafa man a am ci adduna man a am ci alaxira yërmande yàlla ci adduna mën nañ koo ñaanal yéefar mën nañ koo ñaanal ku mu doon ndax képp euh, euh, rahma euh, yërmande rahma rahma jo di tekk yërmande bii dañ koo xare ci rahman bii ñu xare ko ci rahim bi ñu xare ci rahman moom jullit ak yéefar ak baahimaak ndogment ak jaan ak gaynde lépp ci yem ndax amul mbindeef muy dund ci kaw suuf te yàlla yërëmul bu la yàlla yërëmul doonoo yi mu àgg kenn ku ci nekk am nga noonu yoo xam ne bu fekkoon ne amul malaayka yu lay aar ñu daal lay rey faagaagal la fi saasi wala ci melo jëm suuf si sax suñu borom yërëm ne ko ndax li ñuy wax ay météores yoo xam ne day bombardé suuf si ci minute bu nekk wala heure bu nekk wala bis bu nekk ay bombardement yoo xam ne bokk nañ ci li ñuy tuddee le miracle de la conservation de la terre kéemaan la suuf si nekk fi bañ a takk bañ a toj bañ a lakk nit ñi di ci dund ndax météores yi nga xam ne moom la asamaan si di mu mën a faagaagal suuf si ak ñi ci nekk ci jamono bu nekk te teewul suuf si ne fi kooku aar ba ñu leen aar ñoom seen bopp borom scientifique yi daf leen a jaaxal duñ tuddee ko miracle maanaam kéemaanu yàlla kaawteef kon nag yërmande yàlla moom bu jujjee ci rahmaan lépp la boole yërmande yàlla jooju la sëñ Tuubaa di wax irham jami al wara waaye yërm rahma ji jóge ci rahim moom duñ ko ñaanal ku dul jullit yéefar bi nag mën nga koo ñaanal mu tuub mën nga koo ñaanal mu am mu gudd mën nga ko ñaanal mu mucc ci ay musiba ci bala man nga ko ñaanal fan mu gudd man nga ko ñaanal alal ju bari waaye mën loo ko ñaanal suñu borom jéggal ko aram na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxuma yéefar yi ko feeñal waaye naafiq yi newoon ci biir jullit bi sax ku ci dee suñu borom daf ne ko wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi bu ci jullee kenn bu ci taxaw ci bàmmeelu kenn weddi nañu yàlla akub tam mu dal di wax ci beneen aaya ana nafs bi nafs waaw kii laaj boobu euh, tontu bi jeexagul waaye jamono ji mayewu ko euh, waxal laaj bu mujj bi mu ni bu mujj bi euh, an nafs mu ni lu tax li alquran santaane wa katabna alayhi ana nafs bi nafs wala ayna bi leen wala bi leen wala bi leen wa sunna bi sunna wa juruha qisas nga man li ñuy wax lalwa du talion talion mooy nga foq bëtu nit ñu foq sa bët nga dagg loxo nit ñu dagg sa loxo nga dagg tuñu nit wala bakkanam ñu dagg ko ci yow nga dagg tànku nit ñu dagg nga rey ñu rey la kooku mooy waa talion waa talion ñu mën lu tax ci Ahmadou Bamba appliqué wu ko woon loolu lu simple lu leer Cheikh Ahmadou Bamba amul woon gouvernement gouverné wul woon tubaab yi bi ñu fi nekkee ñoo gouverné ngeen jéggal ñu kon ñu ñaanalante de julli ji tàkkusaan bismillah